that. taala barkatu ñi ngi nuy ñëpp ku ci nekk sa tour ak sa sant di leen siyaar di leen màggal di leen damo di leen titro di leen wax ni bon vendredi juma mubarak pour ñu jotagul julli ma leen di bégge bu wéram di leen wax ni à 22 deux heures incha que tout le monde se connecte ci page le président Ousmane Sonko le vénéré Ousmane Sonko 22 déglu ko ak xel vingt deux heures dit allah jumaa ji dina Il Je suis contentement Ousmane Sonko parce que ndaw yi dinañ jël seen biir seen feuille di noter patriotes yi dinañ kontaan panafricanistes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àdduna bi dinañ bëgg trop su souverainistes yi dinañ ci yëg seen bopp nationalistes yi dinañ ci kontaan alhamdulilah loolu mbégte la yaakaar naa ni yombul du ma ne yombul jeune vraiment bu une tête pleine et bien faite bu annoncé des centaines de milliers de jeunes à travers le monde di identifier où ci publication bu mu def laag yi di taxarnaase commentaires yi di taxarnaase et cetera et cetera loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla alhamdulillah je pense que ne vous inquiétez pas Ousmane Sonko c'est pas un détaillant newul nit buy détaillé amul jotu kesew kesew gi ceeb bu sew bii nga xam ni sincèrement euh, de mœurs légères lañ leen xame je pense pas que Ousmane Sonko am jotu di tontonteeg ay caga ju sew si ay màggatum caga màggatum jàgg màggatum kooba euh, tuxkatu yàmba naan ko sàngara yi bandi yi di taxawaalu caga yi di wëndaalu ay Dubaay ñu leen di yóbbu ci ay avion présidentiel di leen iri di leen tëddee yenn mannequin yi je pense que euh, ñun suñu problème newul euh, solutionné suñu maanaam suñu suñu suñu nombril suñu problème newul maanaam suñu di jéem a wàcce suñu jaanu biir loolu du suñu feebar ñun suñu problème lii la maanaam li ñuy jéem a enrichir lii la ñun jéemuñu xumbal tubéy ji xumbal tubéy nawul ci suñu bopp nu ñuy def ba feesal fii tepp tepp tepp jéem a doxal réew mi defar ko ba mu ne cocc cocc ci loolu lañ ne donc ñi nekk ci vague non, noonu di vogue ci vague bo xamni ni seen équipe c'est composé de satch parce que gis nañ kuñ japp flagrant délit mu satch ay liste yeewi askan wi daw ñu gis ko mu ñëpp diko wër wantit ñu gisee ko mu génn digg pale ñu gis kuñ japp flagrant délit faux médecin ñu jappé ko mu mu ànd ak le ministre de la santé muy doomu ndeyu président bi ñu jàpp ay député ñuy trafiqué passeport diplomatique ñuy doomu ndeyu président bi ñu jàpp ab député faux billet trente deux milliards muy doomu ndeyu président bi ñu gis président bi dem Dubaï ñu gis ci ay caga yu ñëpp ràññee duñ sax tudd seen tur yi nag di leen may sax bës nag maanaam ñu gis ci hôtel yi ay caga yu ñu ràññee ci cagaïsme ci caga ay international caga yu ko nëbbut ñu jàpp leen ci ay euh, mërs problème de mërs tëj leen sax ci kaso yi ñu gis leen ñuy identifié wu Dubaï ne président bi lañ àndal kon président bi nga xam ne yow sa entourage ay caga la ay jàgg ay góor jigéen ay sàcc ay trian ay trafiquants de faux billets ay trafiquants de passeports diplomatiques, ay ay faux médecins ay ay ay faux médicaments je pense que kooku ku ko nawlewoo baaxoo ku ko nawlewoo sa yaay jurul ku baax ku nawlewoo kooku sa yaay jurul ku bax. ñu ko wër ni la te Ousmane Sonko. bu muy yëngu ba suñ jonn yalla te japp guñ kenn ku ko jage kuy tok sax yamba kuy tok yamba kuñ japp ñi ne jage na Ousmane Sonko day tok yamba lu gën ndaw rek tok yamba la la wax de nañ ko téré Sénégal no japp guñ sax kenn ku jage Ousmane Sonko ci entourage kuy tok yamba wala ñu japp ko muy nani sangara bay bay daano ko lang ñi ci entourage am lañ ko jappé te président bi japp nañ ci entourage am falsificateur de faux billets euh, trafic de passeports diplomatiques, faux faux médicaments ak ay caga yu taxawaalu fenkat sosalaatekat kooku bu wootee pour pour débat <laughs> man musuma seetaan débat Macky ce qui est ce qui est intéressant mooy musuma man man man mi. depuis bu ma sama fulla gi ñëwee ci man du ma mus toog di perte sama temps di seetaan Macky Sall muy direct nii 4 avril nii fin d'année jiñ naa ko ci daraje Seydina Mohamed ajjuma la barki laa ilaha illallah xaw ma ban mille neuf laa gëj a toog di seetaan Macky Sall nii mu yor micro naan day wax man moom mus bokk bokkuma ci ñooñu yàlla seede naa ci ajjuma ji may wax nii bu fekkee ni man ça nu mu dee dee dee plus de cinq ans wala lu ko ëpp wala dix ans yoo xam ni man tooguma di xool Macky Sall nii muy direct live ma koy seetaan bu ma ko gëjee xaw ma ban mille neuf cent la billaahi wallaahi wa taalaahi bu dëgg yàlla na ma yàlla def matt safara xaw ma ban mille neuf cent laa gëj a toog nii Macky Sall toog jàkkaarloo waaye bu dee Sonko la moom vraiment seede yàlla jaral na ma sax bàyyi liggéey jaral na la sax daw liggéey quoi bu dee Sonko moy wax bu dee Sonko moy wax damay am mbégte boobu kon la jeunesse africaine la jeunesse sénégalaise réveillez-vous identifiez-vous ci discours patriotique ay discours souverainiste ay discours panafricaniste nañ jóg temm ñun la jeunesse africaine takku gëm ni duñ cogg benn nit duñ martaatu benn nit duñ doon jàgg benn góor yàlla góor ak jigéen mag ak ndaw ay jàmbaar yoo xam ne la dañuy ñàkk dóor daan sañu doole ndamoo lu ñu yor ndamoo lu ñu yor di ko bàkkoo mu wóor ni lii ñun ñoo ko faay cogguñu politicien maruñu taatu politicien ni chien kuti mbow mbow pour am loo warax mais ay nit la ñuy déterminé wu gëm luñ naan l'autodétermination l'autodétermination fight rayante di ñafe pour may Sénégal mu am lu mu mérité te duñ ci topp naan jox leen ñu suñu rançon wala jox leen ñu suñu gain wala ñun ñafe nañ ci maanaam ngay xeex te doo ci xaar dara jeunesse boobu lañ soxla jeunesse buy dëddu alalu àdduna bu bu ko lewul jeunesse bu dul tàllal loxo jeunesse bu dul xaar waaye jeunesse bu dul topp topp ci ab nit di ko tàggali maamam ngir bëgg lu yomb naroo liggéey naroo fas jom jeunesse boobu noonu la ñuy muslu yàlla nañ ci yàlla muccal te yàlla nañ ci yàlla musal jeunesse bii ñuy waajal nii mooy jeunesse su góor yàlla mooy jeunesse jigéen yu takku entrepreneuriat féminin gëm ko taxaw ci di jaayante ngir defar suñu réew ndax nee naa leen réew yii di rawante du luxus du yàlla liggéey la liggéey liggéey gëm seen bopp civisme la souverainisme la patriotisme la loolu mooy indi développement boobu noonu tey réew yi am ñun suñu réew dañoo bari togg bari jàgg bëri góor jigéen bëri bëgg ñu bëgg lu yomb bëri markatu taat bëri ñuy wut lu sedd doxuñu ci yoyu nekkuñu ci yoyu dañu réew sans partisanerie ay far faruñu fenn ci dëgg rek lañu far ci ku taxaw tem ngir defar réew lañu far ci ni doo politique les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Para tentamar ni di teug sabar ni di yàpp ni di ci kaar lolou dañ koy xex dañu bëgg nit yi di am fierté di jog di retrouver wu ci discoursu ab politicien te kenn du len yàpp ci kaar lolou mo wara jeex Abdou Diouf da ko def ay at Senghor da koo def ak Abdou Diouf 40 ans ñu jox Abdoulaye Wade mu def 12 ans ñu jox Macky Sall 12 ans mu ñuy muy yàpp nit yi ci kaar daf leen nit yi xar di achat de conscience loolu lañ fas yéene mu jeex système bi dañ koy break by force par A par B kit même dee ci système bi bi bi xam ni gars yi dañ leen jël motonisé leen def leen ay mouton dañuy jeex alakulial moo tax waxi Maréchal, Sall waxatuñ ko c'est derrière dans deux ans il va quitter le pouvoir calmement facilement képp koo xam ne da ngay bañi Sonko dee ngay mujj dee parce que moom moo fi ne ala kulli àll Abdou Diouf ñëpp xamoon nañ ni bu fi jógee Abdoulaye Wade moo fi ne.

après muy sàcc yor nguur gi sàcc ba bés jeunesse yëpp gis seen bopp ci Abdoulaye Wade propulsé ko Abdoulaye Wade daane Abdou Diouf Macky Sall nekk fi ñu bàyyi ko ñaari mandaam ci jàmm ak salaam bu pare amul keneen bu ñu reyul Sonko walla deewut bu dee dee dund ak bakkanam keneen en deux mille vingt quatre keneen munu fi keneen amut keneen munu amut. amna lo xamni c'est c'est visible c'est visible bo gene ci mbedd fo ten ak fo mën a dem ci aduna lolou jaru ñu lokay jangal ku genn ci mbedd mi ten ciel bi ngay gis ngay jakarlo fo foo dem nak ci monde parce que lo xamne le du deñ c'est la loi de la nature yalla mo def ni après Macky Sall Ousmane Sonko Et on va régler tous ces problèmes-là, Inch'Allah. Tous ces problèmes-là. Problème de banditisme d'État, Sati, par parlo, Rawale, Djel Khalis, Wekoukoutiaï Parti, etc. etc. te amuñuy argument man mi ngay gis ni, dama yew suba bu goudi, di a wa a peristi, munuma len jot barke Quran, man mi ni, sama lay bi, limay may Aperis pour kep ko dougal ko ci live bi duma ko reub kenen parce que amuñu argument té lañ leen di naxé duñ mako naxé dedet déedéet ñi ma wuma tek fi ben apériste mu taxaw naan ma wéy ñun ñoo tabax 12 12 marché ñun ñoo tabax ñoo peinture jakka ji non koku dang koy def ñeneen dama yew di leen reub kenn la fi jotta a mukanya ko mukanya bo xamni ni ba mujj dem pale gaay di ko menacé fo mu may woo naan ma dindi live ma ne ko mukk duma dindi live loolu c'était en facebook bu ma nekké facebook avec Babacar Lo ndjay bi nga xamni mi ngi bir pale di liggéey daf mako nangul ndax sama copain la top naa ko ay wéri wé ma invité ko live dem len youtube ngeen bind Babacar Lo ndjay mola laa gën moy bir pale lay yéwo nak bir pale lay liggéey yor otoom yor léppam Babacar Lo Ndiaye ma koy ma koy def ren sax bëggoon na doon maire Kaolack mais mujjul am quatre voix dëgg rek moo am solo te moom moom la moo ma gën a jege ci ñëpp moo ma gën a jege ci bépp politicien moo ma gën a jege sax Ousmane Sonko quatre voix amu ko bu fekkee ne ay gaayen rek sama gaayen la nag bu ñëwoon fii dem ba New York ma seet ko New York fu mu dem ma seet gis eh, gars ñi ànd di kaf di ree parce que ñun ñoo defandoo envance ñun ñoo rabandoo ñoo foowandoo fa la yem mais bu doon dénk lu ma koy dénk du amul lu ma koy dénk lu dul ngunu ginaar mu ko dénkul ngunu ginaar mënu ma ko dénk ay affaire d'état tey Macky Sall moo ñu yàpp dénk ko ay affaire d'état may yoot di yoot ba nu nuus Babacar Loo Njaay dugal ko sama live keroog àdduna ñi doon seetaan ñëpp dañoo tiit Babacar Lo Ndiaye safatul woon dara dara ma koy jàpp amul fu mu te pale lay génne te day gisante nii Macky Sall fu mu ubbi ma jàpp Babacar Lo Ndiaye di ko pakete di ko teg di ko daggate di ko daggate te sama doomu ndey la nag di ko këppati di teg di këppati di teg ba def ko ay morso teg live boobu baaba kërloo njaay la landeme pale la dem gaa bi ko yuux ñëpp mer ci loolu lu tax mu ñëw ci sama live mu woo ma waaye moo laa booy fii xoolal dindi live bi quoi jàpp ci rek jàpp ci ma ne ko mukk mukk mukk non booy xoola affaire bi mi ngi may indil ay problème sax gars yi nii ma ne ko mukk mukk déggu leen wax ci xanaa mukk yow ngay doomu nday Macky Sall ko rëkk ba ko rëkk nga yëg ko amoo sax ay argument yow mun a teg fii ma lay posé question di tànc la xamoo noo def sénégal yi xam seen xam ni yéen amu leen bopp amu leen programme nga bëgg ma dindi du ma dindi live man man du ma effacer live ñu ko seetaan nañ dem nañ dem rek xooli Babacar Ndiaye Lo Ndiaye gisul dara dara dafa jommi sax dafa foog ni sax dama ko mystique parce que la ñuy def noonu gars yi dañu amul sax programme tey nag balaa maa rëcc dama am sax ku ci jot kepp quoi sama benn doomu ndey ku am xam-xam la. ku mun a défendre la mais dama ko tay dama ko dama ko bëgg jël dama ko bëgg jël ci APR nak la ko xamé APR xaw ma nag dañuy dama ko bëgg jël ñu waxtaan ngeen déglu ñu déglu ñu waxtaan feeñ na ma légui ci ci ci live bi alaykum Wa même Wa naka mu est ce que ya Instagram wala. maa ngi lay suivre Instagram ni ok lan ma sa bindal bindal ma ma jëm la invité wala nekkoo sama ami lu may ah? na nga feeñ fi quoi ah la la ok ok ok ok dama la bugu... la ok ok xaaral xaar ma xool parce que dama la bugu a jël quoi parce que man mom, dama xiif AP wa APR si quoi dama la jël waaw xaaral mais man de ne nekkoo fi ah waaw ok ok. non laay point gay la ok ok ok mu ngi nii. xoolal dama bëgg ñu débat quoi dama bëgg ñu parce que yow moom am nga bopp am nga argument maa lay woo quoi da ngay décrocher rek kii am na bopp am na argument ku am xam-xam la koo xam ne xam naa ko nag xam naa ko bu baax a baax a baax xam na ma it. dama koy jël ñu waxtaan xam naa ni tam gor la waa laay alay waa <laughs> ma ne dama ne gars yi ah. yow xamante nañ bu baax dëgg la Babacar Lo Ndiaye xam nga Babacar Lo Ndiaye waaw mooy gaan yi ñëwoon doon élection ak ñun rek. très bien. ñu fëgg ko fëgg vraiment ñu fëgg ko fëgg yu métti. vraiment mooy affaire bi amu ci jàmm quoi après woo ma ne ko laaj ma ne ko déet laaj moom mënuñu koo dindi. mënu leen tege Macky Sall mënu leen tege Macky Sall te amu leen xam-xam mënu leen tege Macky Sall toog ci plateau yi di di ci génn noonu c'est comme da ngeen di jouer ay benn film ak ak ak maanaam journaliste yi leen di invité ngeen di ngeen di ngeen leen di paqueté facilement. Nak sama xel dem lay ma gis gis naa la du dëgg à un moment nga identifié wu ci waaw waaw Mimi Touré waaw lay lan la APR ak di identifié ci Mimi Touré mais Mora Mora nag sant ngi suñu borom

non ban Macky Sall man damay rey sama bopp booy. waaw waaw jàmbaar nga de. jàmbaar nga ñafe kan. yow man ba ma xamee ba ma xamee ba tey. Hmm. liggéey nga ma xamee. waaw dëgg. bëgg bëgg président. Hmm. bëgg président jàppale président. Hmm. mais man musuma jox ndam ba tànk. waaw bëgg nga ko jàppale ko mais musu la jox ndam ba tànk. non musul jox man lu am naa ko man sama mais problème bu am moo ma ko teg. problème bu am moo ko teg. problème bu ma am moo ko teg. comment nan la tegee problème yooyu mom Macky Sall. waaw mooy xam nga euh, Morgan gis nga Macky euh, nit gënu ko. Hmm. waaw nit gënu ko c'est euh,

amul kenn koo xam ne nii jox na askan bi dama lay jàppal dama lay waxal lu leer tey dama lay defal live boo xam ne ni man ku ma xam xamee ma Macky Sall. Hmm. ku ma xam xamee ma Macky Sall. Hmm. j'ai un que je ne badine même pas sur certaines choses. Hmm. damay wax ci kaw gi nga xam ni nii xam naa ko ba pare. Hmm. damay jëlee ci Mimi bi nga xam ne nii man moom laa nekkaloon. ah Mimi Touré waaw wala lu la génne ci Mimi Touré man laa bëgg njëkk a xam sax déjà. mais Mimi amul njëriñ amul njëriñu Kaolack amul njëriñu ay militant jàppalewul président président lay xool ay bagaasam comprendre nga defalul kenn dara boppam mbokkam jeex na. Hmm. dama lay waxal lu leer Mimi man dama ànd ak moom ay at. Hmm. sacrifié wu sama life ci lu bari. ay mm-hmm. ji may wax ak yow nii dama bëgg nga wax ma kenn ko xam ne nii xam nga ko ci Mimi Touré Mimi Touré moo ko defar gu mu àgg ci politique amul. Mm-hmm. intérêt rek. waaw mais mais. doon na fi li nga li nga wax laaj dama ciy gis déjà lu may njëkk a laaj. mooy bu may si. waaw benn discours boo xam ni. Euh, discours ay ay ay lekk ngay wax ngay wër waaye discours lekk parce que. yaa ngi naan ku mu defar la Mimi Touré que dañ ko jox lu mu am ba war a laate wala defar laate lan la leen di defar politiquement la lay defar wala ci say poos parce que Mimi Touré dañ ko joxut lenn lu mu war a yor bay defar laate ak defar laa defaate defar laate loolu moo ma jaaxal fan ngay waxee yow defal la. xam nga yow xam nga yow li tax sama waxtaan ak yow nar uh-huh. a ah, su ma leen waxee kii man moom fi jaar yéen ñu ngi ko comprendre. yow rek la ñuy at mi yàlla yi <laughs> dégg bi clip gis-gis yi waroo yi génne. <laughs> non waroo yow doo ko mën a mën de booy yow police ma nga boobu laaj. non mais ma bàyyi loolu. du mën yow wéy ma déglu rek déglu bu rek sama doom. waaw déglu wax ñu loolu. loolu la donc li ki laay développé da ngay développé àdduna bépp di la déglu da wax ni Mimi Touré képp ku ko jege defalu la defalu la dara ma ne yow Mimi Touré lan la ko askan wi jox ba mu la ba muy war a defaralaate di defaraate voilà dama lay wax. gis man dafa am ñaari engagement. oui mën nañu wax si suñu jaar jaar démb ak barki démb. waaw léegi dafa am boy dafa am deux types en politique. Hmm. dafa am politicien boo xam ne c' est des politiciens stratèges. maanaam il développe des stratégies di di nag seen xel di ko nàccal di joxe ay point de vue di joxe ay positionnement ñooñu xel rek la leen président di doyee xel rek seen kat rek ñoom jaruñuy ut base jaruñuy ut dara na leen président teg fenn foo xam ne nii dañuy nekk dans l'ombre seen moyen di ñuy ñuy ñuy ñuy seen moyen di dox lu mu sori ñuy génne ay stratégie di teg ay détails yu bëri stratégie naxaate quoi non non mën nga doon am na ñoo xam ni ñu ngi ci wetu président ay stratégie naxaate dong la ñu am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci wetu président ay vrai stratégie lañ koy tegal nu mu génnee réew mi ci kanam. foo gis ne amul lu baax amul ah, daal ci biir président am moom am encadrement am am na ñoo xam ne ay stratégie nax askan la ak ñoo xam ni dañoo war a ñëw pour liggéey d' accord ñu bàyyi la nga continuer. ak ah, ak stratégie sàcc sax am na fa mais su fekkee ni yow. da dem ba ci politique nga taw nga woote ne da ngaa soxla base au nit ñi commencé waxtaan ak ñoom di développer ay base di soxla ay post politique comprendre nga di génn ka dem. loolu da ngay soxla ay nit ñoo àndal. d'accord. tu as besoin d'avoir des lieutenants. Mm-hmm. tu discours boo xam da nga koy ñëw jox nit ñi nit ñi déglu la discours am yaakaar ci yow nga yaakaar loo lu bari. ñu bàyyi seen lépp ñëw ànd ak yow. Mm, ok sa sa courant. sa courant de pensée. waaw adhéré ah, ah, sa courant de pensée ñenn ñi ñooñu mooy ñi nga xam ne xel boo leen fa indi ñii nga xam ne da nga leen di dig ne leen non amul problème affaire bu baaxee ñu jëm leen a dugal fii dugal leen fii est-ce que comprendre am ñenn ñoo xam ne dañuy pauvre wala am ay jafe-jafe du ñu yaakaar lu benn yaakaar ci yow pour nga jàppale leen et tout ça parce que Sénégal moo mel noonu c'est le niveau de pauvreté. Sénégal mon mel noonu Afrique mon mel noonu. Hmm, gars Qu'est-ce nga ça veut dire nga xam ne nii tey. am na conviction mais dañ fay dugg pour ay des besoins culinaires quoi. non pas culinaire Culinairement, chaque jour ku yeewu besoin culinaire mooy tax a parce que veut dire dans le triangle de Maslow mooy triangle de Maslow li nga xam mon moom yor dundu doomu aadama yi lekk dem ay toilettes ak faju moom mooy les besoins physiologiques. loo xam ni nii ku ko deful da ngay ah, dee. te loolu na primaire aussi. des besoins c'est des besoins primitifs. mooy besoin primaire. loolu ku ko deful da ngay dee. kon cela veut dire que ci li nga xëy nekk ci suba ak ngoon moom moo la war a mën a assurer say besoins physiologiques. léegi nag yow soo ñëwee nga gëmloo gars yi ay ne no lii mën naa nekk besoin physiologique yi nii naa kërëb kërëb amul problème des fois nga yëkkati ay cinquante mille jox leen ne leen non je noonu la def di def nit ñi doon premier ministre. Mm-hmm. ba wàcc premier ministre del siwaat conseil économique et social lépp mu doon ko fii te xool France daal di tëddee gis nga Kaolack. defuñu leen dara bi mu ñëwee élection. maanaam ni mu tëddee moom dama lay wax noonu xam nga lan la fi defar xam nga la defar fii lii sa fal jooje bi mu doon jàngee. la dem mu defar fa ay ñetti douze ñetti douze. Ah, ñetti douze ok li ñu safar joojo waaw. après après mu dem foofu di di inauguré douze yi <laughs> mbaa jiitu na ci douze yi inauguré moom mooy nga ñëw di jiitu ci douze yi saw ci douze bi tuub ci douze bi loolu mooy inauguré douze moom. non non mais moom inauguré woo ko noonu dafa indi ay sabar indi ay affaire kërti kërti. voilà ñëw ne ni ñëwee defar naa douze fii. Ah, ah, ah, durant tout le na ay sabar euh, inauguré douze amoon na sabar. non am na am na am na ambiance quoi. ah inauguré boo la defar. léegi inauguré nga jiitu fa nag. day fa non nañ bàyyi nañ bàyyi Mimi Touré gis nga Mimi Touré. Mimi maanaam gis nga tey jii nii Morgan position yi nga xam ne nii Mimi amoon na ko ci gouvernement bi. wóor na yàlla bu ko joxoon keneen koo xam ne waxatuñu mbir ñi kon Kaolack mi ñi naaj nañ. mais mais mais mais koo xam ah. ci exemple yi nga xam ni dama yàgg naa leen dégg yéen waa affaire ngeen koy bàkkoo comme benn ku jàmbaarte et tout ça yow boo ñëwee wax lu mel noonu dina paradoxal par rapport ak li may dégg ngeen ngeen koy doon taggee Mimi Touré. waaye eh, Morgan jàppale ñu waaye yow reex taxul noo ngay jàng. dem ca daara ja dar ko ba parce que taat yi nga après nga génn dem sa yoon jëlewoo fa xam-xam jëlewoo fa dara kan moo koy def hmm. yow li ngay def nii pour dara la nit ku ci nekk même si tu as des idéologies tout tout homme est intérêt toute personne est intérêt et la somme des intérêts individuels constitue effectivement les intérêts communs muy tabax dëkk di tabax réew di tabax lépp ci àddina loolu mooy adina kan mooy yow suba ba ngoon yow yow amoo benn intérêt ci adina. non mais xanaa booy lekk sax hmm. am na intérêt waaw mais Oui, ma intérêt personnel. intérêt personnel moi, là. Ah, intérêt personnel moi, moi, def ngir yow def ngir sa gafaka loo yóbbu sa kër loo jox sa njaboot c'est personnel. waaw ah, dama lay laaj benn affaire yow yow bi ngay yow bi ngay bàyyi kër gi di dem sa intérêt personnel la wala pour intérêt commun la woon. bu may bu may di dem kër gi. bi ngay kër bi ngay la bi ngay kër gi bi ngay bi ngay sa carrière solo di dem di rejoindre kër gi sa intérêt la woon wala sa intérêt wala intérêt intérêt keneen la woon. c'était l'amour du hip hop ah. c'était dans l'amour du hip hop. waaye bàyyi l'amour xoolal wuyu ma bul na fontoo. Ah, booy ne nel ma yaay fa ma fekk man lépp fa C'est ma fekk. c'est l'amour du hip hop. yow. c'est l'amour man bàyyi l'amour du peuple yow xoolal wuyu l'amour du hip hop lépp. kon l'amour du peuple amul. l'amour du peuple amul quoi. déggoo C'est un dama l'amour du hip hop laa la wax man loo wax noonu C'est un ko ci yow. bien sûr la preuve bi ñuy tàqalikoo ngay toxum manam sa du ma gàddu ah. sama mbagg mi ngi doon wàddu ndax ay texte ay kaye ci texte nga ëppoon ko ay yére <laughs> wa texte la waaw ça montre que l'amour di hip hop c'est vrai tu as raison l'amour di hip hop dégg moy l'amour di hip hop ah, mais sa saaku saaku texte bi moom ko yanu won <laughs> dégg ok léegi nii léegi même quand il y a l'amour du hip-hop pour que hip-hop la. waaw mais bien sûr pour mu fay la mais loolu noonu du du ah. maanaam du alalu askan wi nga use ngir defaru ci ñun fu ne ni ci loolu la ñu. ba alalu askan bi nga use. mais mooy déggoo li ma wax wuy ma déggoo li ma la wax en préambule fii ma nekk ne ak li may liggéey nii Macky Sall musuma jox ñaar dërëm. waaw mais lan moo tax ay ah, yow yow yow xam naa la jàng nga am nga say diplôme dem nga université génn nga expert nga. mais lan motax Macky Sall du la jox dara lan parce que lu ngay bañ la wala da nga lu bu doon da ngay nangu lepp ñu def la ko lan moo waral lool. non parce que man man dama lay waxal y a deux types d'opposition. Okay. soit on, on choisit de s'opposer en dehors du système soit on choisit de s'opposer dans le système man j'ai choisi de m'opposer dans le système. man affaire bi fimu nek fala nek nekk Macky Sall mais su ça ne va pas je dis que ça ne va pas je rends damay yuuxu la preuve preuve yi gën a récente mooy Macky Sall mom la andal mu tànn mu Ndiaye Rahma mané ko ki mënul yor kawla ma xaj sama wall xaj sama wall dem and ak Serigne Mboup on les a labiné à plat couture. ok wan Macky Sall ne ko man du man man duma sa bey duma sa xar. Mm. am naa xalaat am naa may ñi dàqul ma jàng est-ce que comprendre dañuy dund dañuy dund mais lii nekkul nekkul maintenant nag ñi nga xam ne ni ils ont choisi de de en dehors du système mooy ay comme genre Ousmane Sonko comme yow et tout ça beneen de d'opposition la boo xam ne moom ngeen di dawal mais ni gën méttee ci biti man noonu laa méttee ci biir léegi nag gis nga ñu ne ci biir su ñu xamee ni yow da ngaa métti yow da ngay yàqal seen bopp danga nga leen di yàqal parce que ay sàcc lañ ñu ci bëri ñu nekk fi ay sàcc lañ dañuy dañuy. dañuy toroxal askan bi waa affaire yi. Marguerite dañuy toroxal askan bi kii affaire bi man dama bëgg nit bu dëgg quoi. Hmm. voilà est-ce que comprendre nga yow boo jëlee Mimi Touré bàyyil Mimi Touré sax nga dem ci Souleymane Ndeye Ndiaye. waaw affaire bokk affaire mun nañ dañoo mën a fen. non man yow man appel vidéo laa def. Ah, man kay man xam naa ne affaire nga bokk xam naa ko. dama lay waxal lu gën a gaaw. man maa leen gën a xam sax li mag Sall liggéey. Hmm. man je te dis que maa ngi lay waxal man j'ai travaillé en Écotran fa laa nekkoon comme directeur comme chef de département. suba ba ngoor man chaque mois je faisais le tour du Sénégal wala ma def xaaju tour du Sénégal. Hmm. pour suivre les chantiers ak tamit di dox ay ay ay ingénierie sociale suñu entreprise. la loolu. di répondre ci appel d'offres. Hmm. man dama lay waxal leen. Ecotra c'est pas une petite entreprise c'est une très grande entreprise. bu am ay chantiers gis nga yow ñii tëdd ci biro yi nii nekk di ngàmmi ngàmmi di wax man li ma xam ci di Macky Sall def ñoom xamuñ ko mun naa tëdd fii naan la dëkk bu ci nekk Macky def na fi lii def na fi lii hmm. loolu en je te dis à à soixante dix ou bien quatre vingt pour cent du Sénégal yow xam nga man dama yàgg dof yow Morgan xam nga ci dara dem nañ ba dem ci montagne bu tëj ci bëri bomb yow xam nga li ma la eh, eh, da nga xam Dame Ndiaye nee na moom sax fa la fa la nekkoon quoi Dame Ndiaye whatever c'est très grande entreprise man limay waxal ni lu nekk la hmm. est ce que comprendre nga APR APR ak Benno Bokk Yaakaar ay kat la ñoo fa bari hmm. dañoo sonal Macky Sall sonal ñu ñun suñu classe gi nga xam ni ñun ay révolutionnaire lañ man xamul lu ma sonné ci adina ah jang as ba pare am fulla ak fayda nangoo liggéey non non non waxoo man suñu wala xaar waxo da nga nan lan mo la sauvé ci aduna bu ñuy fréquenté ñun ñii ñoo la def hardcore def la underground bañkat nangul loolu nag. nan la ma ne ñun ñoo la def bañkat ñun formé ñun ñoo la formé ñoo la def bañkat nga dem APR nekk fa bañkat moo tax amoo fa dara ñun ñoo la formé. léegi yéen wuyu ñi seetaan live dama leen di may benn affaire bu ndaw ci diggante kilifa ak Mor Gën quoi xoolal booy yow jamono intégrant nga intégrant la dañ la formé ma ñëw di solay seen ay pantalon seen diir di baraaye ñu ñu ñu wan la ni fii amul <laughs> affaire affaire patron déedéet booy xam nga li ma bëgg a wax lan la ah xam nga li ma bëgg a wax xam nga man bu ma liggéeyee ba ñëw damay sol damay tëdd waaw booy dañuy dem concert booy ñu dem concert booy bomb foofu mu tër gars yi naan kër kii kër kii kër kii ñoom ay trois cent ak ay mille cinq cent lu ñu reere sax duñ ko booy dibiteri bi nu mu tuddoon dibiteri bi nu mu tuddoon dibiteri bi nan la tuddoon <laughs> kii nag moom ñu ne ñoo doon ànd jamono yi. Ah. <laughs> waaye yëral la ñu dem ñu dem yëral ñu dem yëral booy booy ma génn sama xaalis booy xool ñu boole ko mille cinq yi jënd ay boutique quoi ay laxas ak affaire boobu noonu mbàq yu bëri yi noonu laxas noonu nag ko kumpa kumpa booy ñu lekk ko dem tëddi man su ma lekkee boutique yi rek damay teel a nelaw léegi booy boobu xam nañu dama man dama mën a nelaw. su ma wekkee sama pantalon su ma yeewoo rek ñu sàcc sama xaalis bi quoi moom moom ak kilifa <laughs> moom moom ak kilifa ñu sàcc sama xaalis quoi bu ma yeewoo laal sama poste commencé déconné déconné déconné ndekete ñoom sàcc nañ sama xaalis yàgg na léegi su guddi gi jotee su may tëdd damay damay yëkkati matelas bi. jël sama xaalis dugal ci suuf quoi mais sëñ damaa mën a nelaw Morgan daf may bamax ba ma dem na la mu yëkkati ma laa bi sàcc sama xaalis dem léegi bàyyi mais Morgan beneen jour bi dama sëñ bi xaalis bi ma xool ma xool ndegam ma xool ndegam yow da ngay sàcc wala sàcc quoi ma jël ma jël sama ma defee ko tet ma jëlalee ko tet quoi ma tëdd sa waay daal di ñëw xool xool pièces yi ay pièces fi nekk mënu ko sàcc mu yóbbu ko fiis <laughs> waaw booy gis am na wala amul. Ah, loolu am na moom amoon na de. ah xool tet bu ko tourné ma tourné yëpp piis bàyyi ko dem sama yoon. ah. dégg nga que comprendre c'est pour que dire que ni li yàlla di def ah, ay réel ñu daje woon quoi ñun ay réel lañ. yàlla def ñuy jàng ñuy ñu nekk ensemble tey jii nii su ma dee bind sama biographie dans la vie li ma li ma dox ci ci ci ci ci euh, euh, ci ci kër gi ak man ak yéen li ñu dund ah booy barke rasulaay ma ko fàtte ci àddina ah loolu moom mënul nekk quoi man mais man je suis je suis Macky mais gis nga ñi ànd ak Macky Sall ñi Kaolack laa wax Kaolack moo tax Kaolack jéppi leen sanctionné leen ba ñu bëgg dem dara booy de vrai menteur de vrai menteur dañuy dem ci Macky Sall gëmloo ko ay affaire Macky jox leen ay affaire du ñu ñëw jox Kaolack dara booy xoolal Kaolack ni mu mel booy salte boo bëgg a dee xoolal Kaolack booy booy poussière bi da dem bustaan wala nga dem seen koñ sa koñ booy ni ñuy dem seen koñ yow xam nga seen kër neexut a dem ndax yéen seen waa koñ moo gën a ëpp ndox yu salte dañuy tuura tuura tuur ci mbedd ñi ba non booy booy yéen seen koñ ñu salte na mu rëb non seen moo gën a salte ci moom. mais mais fa lay tuuree affaire yi fa lañ ah. mm-hmm. antis antis man 73 la moom 74 man ak Morgan benn lañ. non laay maa ko man soixante douze ans soixante douze. waaw mën mën naa grand woon nag grand buul kii moom kii ñoo doon bokk mat laa ñoo doon bokk lal ñoo doon yeewandoo am lépp ñoo ko doon defandoo lépp tout lépp. kii kii foo gisoon kilifa foo gisoon cat foo gisoon gajaga da ngay gis laay kii mooy laay gay kii moom kii moom <laughs> lépp. na sëñ lépp ñoo ko defandoo waaw. ay ñoom LDS Kelt ay LDS Kelt. ay LDS nañ delluwaat fii nañ delluwaat affaire jëlal Souleymane nañ des kaw la. ok jëlal Souleymane Ndéné Souleymane Ndéné la honte c' la honte de la République. Hmm. waaw comment. Wow, madame euh, tey jii a Morgan àdduna boo ci génnee ay valeur mu jeex hmm. nit valeur hmm. Ni d'ailleurs. Hmm. le champion du reniement le champion du mensonge le champion du retournement de situation au Sénégal et à Kaolack c'est Souleymane Ndéné mais comment comment lan moo tax nga mu nga bu ko taxé comme ça quoi. dam lay jox bi mujj. Hmm. moom lu mu waxoon moom du du du mës a ku transhumé mu rey. waaw du ko mës a ci at mi. ah après du mu def. waaw mais mais lay mais loolu loolu waa APR tam di nga bëri yéen yéen yéen APR ay ay caga da leen fay fekk ñoo xam ne ñëpp dañ leen xam ci caga ci caga ci carte caga ay bandi. ay ay ay député yoo xam ne dañuy trafiqué faux billets ay député yuy trafiqué passeport diplomatique xam nga yéen ay ay falsification ay ay euh, faux médicament maanaam yéen affaire daal gars bandi yëpp daal se retrouve là-bas caga ji bandi bandi salté yi sàcc yi tout le monde se retrouve là-bas en fait léegi boo wax affaire pour de gën a comprendre ah. maanaam boo calculer ay caga caga ci ñi ñàkk la gën a bari ci ñàkk espoir. waaw ci la gën a bari. ñu ñàkk espoir bëgg a am bëgg bëgg bëgg a tekki nu mu gën a gaawee. non non non non non dama lay sigal. waaw ci pauvreté loolu si loolu moom c'est c'est universel quoi. non non loolu amul problème c'est le plus vieux métier au monde. foo dem foo dem da fay fekk caga comme ni mu nee nii yow fi mu toll actuellement koñ boo dem fekk fa ay caga soo demee euh, ci parti boo dem fekk fa ay caga. mais maanaam même les noonu na la ñuy ñu parti nga xam buñ politique sax ñoo ñu ëpp caga sax quoi. comprendre parce que booy politique dina am leen loo xam moom lañ. waaw seen parti bi nu mu mel. exactement seen parti bi ni ni noo ko gisee. mais yow loo gis lu ne su xasee ba màgg day am problème. ah bu màggee day am problème. yow day am problème man man dama lay expliquer àddina noonu la demee quand tu es yow amoo problème si nga dem ba ci kanam nga nekk ak sa jabar ah tu gère de une relation ay problème commencé nga toog sa doom ñëw sa yaay ñëw est-ce que comprendre plus que la chose grande sociologiquement les problèmes commencent surtout nag nga nekk dans un terrain politique nga xam ne c'est une jungle tout le monde da ngay rawante pour am dara foofu noonu problème mënu faa ñàkk. waaw mais loolu am na ñenn ñoo xam ne li nga wax noonu moo garaaw nga ne affaire bi dans le domaine politique. day mel ni jungle ndax ku nekk da ngay wut si dara mais affaire dafa grave ko mais maanaam day mel ni benn genre partage yi gâteau ku nekk di wut si dara gars yi ñiy doon ay gaynde ñi ku nekk da nga paar ngay paar wut si mais loolu ko population bi moom lan kañ lay jot ci paaram moom. mais mais ki yow ki nga xam ne day dem wuti ji même kiy dóor ci population bi bokk. bu dóoree ba pare bu koy lekk ci population bi la koy lekkee. bien sûr ba loolu laa wax mais mais en tant que politicien la. voilà est ce que loolu war nañu ko réformer mu rek da ngay dem pour Sénégal Sénégal dama lay waxoon Sénégal pour ñu mën ko defar dañu waroon jël benn pays benn pays ñu toxal fa ñëpp ñu nekk fa. ñu jël Sénégal yëpp toxal leen foofu ñu toog foofu ñu génn ñëpp Sénégal ñu defaraat ba pare commencé leen dugg leen benn par benn. d' accord euh, mais kan moo koy defar boobaa kan. man man man man Ablaye Gueye. yow yow Macky wóoruwu la joxu la dara nga ne yow ñu lay ñun jox ki nga sax joxu la. waaw même poste raskat du douze sax joxu la ko. non dama man man mi wax ak yow Macky Sall même su ma joxul dara man je garde ma ligne je suis ce que je gëm sama gëm di dox li may dox. gëm ñu naan gëm li nga gëm dëxëñ fi fi ñu jëm. ah jàmm la ñuy am kattanoo xam-xam. ah rëkkum ci bañu dëmb. day eh? fàttaliku loolu. gàllankoor fan la fan la ci ak mën na mi yéegal ni moom bind bi indaale seen gëdd bi. mooy man nag ici. Eh, waaw laay laay laay ah. laay kër gi am mënuñu ko fay quoi. ma nekk studio. waaw waaw di job soo gëm lu gëm. dëkk nekk sama gëm gi naan. dëkk gëm nekk ci biir bi. dëkk. boy boy. bët yi xonk xol yi. Eh, boy bëm. Eh, kilifa caar gàcce kaay rek. laay eh. dem ni rënkum ci bañu dëmm. yow rënkum ci bañu dëmm. eh eh boy refrain bo maa ko moom. rënkum ci waaw munoo soob ma bind samay refrain nga yokk ci rënkum ci ba ñu dem man luy rënkum ci ba ñu dem nga di. di dox ba déglu déglu eh, yow da nga commencé ay eh, da nga commencé ñaari phrase man la li nga génn ni nice na mais mani refrain bi lépp nañ ko dëpp ci suuf. lépp mu génn. waaw ah, non loolu nga wax da nga ne lépp lañ am. waaw waaw waaw loolu la maa ngi fàttaliku yaa ma ko comprendre nga ak yaa ngi fàttaliku ak yaa ngi fàttaliku benn affaire faaya faaya mooy maada maada killa killa nekk fi dilla dilla kasa comprendre nga bu ñu koy joué bu ñu koy bu ñu ko ma bu ñu demee bu ñu demee bu ñu ah? boo jëlee affaire bi après am na muy taxaw bu la dara yéem fii la ba jaa comprendre rek ma ne rek ma ne gaj dàqal yaa ngi fàttali léegi après faaye faaye mooy maada maada bu ñu demee ba ne si la bët yem man kër kër. gaa yi ne tekk ñu ne non yéen soowulee na ah. ñoo ngi ñibbi rek booy gaa yi ne wóoy non booy maay seen père yéen maay seen père yéen. <laughs> mais léegi mais mais mais mais affaire bi groupe bi après nu mu mujjee demee vraiment ñii. ah ñu ñu ñëpp nekk ci ci ci bañ bi mais yow nga dem ànd ak parti bi quoi. kër gi gars yi la xam leen ci contre parti bi yow nan nga nan nga trouvé wo loolu bu ñu ñëwoon tey est ce que doo doo des fois dañ la wax ne waaye sa boy yi sa boy yi kër gi fii wala sa boy yi moor gën est ce que des fois waa APR duñ la wax yooyu en tant que nit yoo xam dañ la xamee ci ñun quoi groupe bi après ñi ñëpp ñi ngi ci contre contre pouvoir yow nga dem ci pouvoir bi est ce que des fois doo am ay gàllankoor yooyu wala ñi ñi lay reprocher naan sa boy yi wala sa et cetera et cetera. man man man Morgan. Je suis un homme qui assume. Je suis un homme qui assume. Si aujourd'hui, il a une partie de ma vie, en tant qu'ingénieur, n'est na un peu en berne c'est un peu en tant que relation man la tête. Hmm. mais j'ai assumé la relation avec la tête. La tête, ma famille. ça c'est vrai c'est une question de famille. Oh. j'ai assumé ma relation avec le tête. même bi may bëgg Macky Sall dem di ànd ak Macky Sall ngeen ñi gaay yi di taxawal Y'en mar mi ni man man Macky laa àndal man dew ma quoi te pourtant chaque fois su amee problème ci biir kër gi su amee problème laa wax QG man ak Ousmane Diokhane ñooy dem exfiltré booy dugal leen suñu oto génn leen ba ba gars yi leen def dara. yow xam nga ci dara xam naa j'ai assumé ma relation avec le terrorisme. est-ce que est-ce que mel ni mel ni dañ la beddi waa waa APR wala dañ lay moytu parce que dañ xam ni relation yi nga am ñun tamit wala est-ce que am du am ay ay genre xeetu retour yu mel noonu quoi. non man man man dama lay expliquer dama assumer sama sama diggante yow assumer sama diggante kër gi Gadiaga ah Pape Sidi Fall yow xamoon nu mu ah, demee. c'est une famille. loolu xam naa c'est une famille comprendre nga loolu dama assuré sama diggante yéen gis nga su fekkee ne daf ma doon rey kon deewuma échec bi gën a bon ci àdduna mooy nga nga dee nga banque ñàkk xaalis te tey waree ba naa kër gi ba toog fu ma toog fayet sama lépp jàmmoo ma leen jaayu ma leen leen ma te je suis resté moi-même te maa ngi sama famille. Ah, waaw non non yoo yoo xam naa yor nga jàng nga yor nga say diplôme ñi ñi ñi fi Macky la fan sax ëpp ñu la diplôme dàqu ñu la jàng xam nga tu as été vraiment quelqu'un boo xam ni l'un des meilleurs élèves du Sénégal je le dis haut et fort macha allah quoi te lépp yaa ko ñafel sa bopp yaa ñafe ba am sa këru bopp yor say njaboot yor sa soxna du léegi quoi bu ngay bu ngay tekki ba ngay teral. dama ah, loolu moom loolu ñun fekkee nañ ko quoi. boobu boobu Sall sax nekkul sax ci pouvoir bi. bokkul ak arriviste. mani mais mais mais mais mais mais laaj lu may laajte moom mooy. en fait yow lan nga toppee Macky Sall en lan nga identifié wu ci Macky Sall en lan nga toppee Macky Sall en tant que vraiment benn borom xam-xam nit bu yeewu nit boo xam ni yàlla teral na ko avant Macky lan nga toppee Macky Sall. xam nga ne naa la Macky musuma defal dara. Hmm. benn yoon laa ko mos a gis ci àdduna musuma ko nuyu. ah ouais. dama ko séen. dama ko séen nii. musuma nuyu Macky te li ma bëgg ci sama àddina man même na wàcc présidence après man ma toog ak Macky Sall wax sama xalaat. ok ci réew mi quoi boo toogoon ak Macky Sall lan nga koy wax. Macky Sall dina. xam nga lu koy wax. non dafa am loo xam ne def naa ko ba pare loolu fajal naa ko Macky Sall dafa am loo xam ne man dama ko fajal Macky Sall. mooy bo bullshit yi na xam ne nii politiciens yi nekk APR te nekk Kaolack yàqal Macky Sall tax Macky Sall bon ñëpp ñu bañ bañ Macky Sall yàq Kaolack Kaolack kenn amatul espoir mënoo liggéey mënoo def dara Kaolack salte ñooñu booy dama fay rey suma live ñu proposé ma lu ne affaire bu xaalis ma bàyyi ko fa fexe ba ñu génn fii Mimi Touré Souleymane Ndéné Ndiaye Modou Ndiaye Rahma a Gueye ay Kële de Moussa Fall dafa dañoo bari nekk fi di dóor président di lekk xaalis président di nax te jëriñu Kaolack dara Kaolack salte boo fa rombee booy comme douze booy ñooñu booy fexe naa bu booy ñooñu tey jii nii tëggetuñu dara Kaolack ay Pape Demba Biteye ñu jox la Sénélec booy mu doon ay ay ay lu mat si quatre ministères wala ñeenti ministères ñetti emploi sax mënoo ko jël Kaolack booy. kon yow gars yi da nga doon xeex foofu ah? man dañ maa teg may dara man affaire teguñ ma may dara biir Kaolack ndax dañ naan kii booy bi il am na fit am na xel te jàng na mhm. loolu kese la. Mhm. mais mais. tey jii nii ñoom da nga daan def contre campagne ko ak ñoom ñi waa APR yow da nga taxawoon di xeex ak ñoom. déedéet damaa bàyyi. waaw mais bi nga bàyyi. dañ ne modéré kon yow kon bàyyi nga APR bàyyi nga APR quoi. déglu déglu ma. dañoo toog biir APR ñu war a tànn maire ñu ne Modou Ndiaye Rahma moo war a doon maire Kaolack ñu ne ma yéen ñi ñëpp topp leen ci ginnaaw Modou Ndiaye Rahma ma ne Macky Sall maa bañ. ne ko kii mun naa ma ne ko kii xam na extrait de naissance ak certificat de décès. <laughs> xam xamu ko. Euh, dëgg dëj. Hmm. kii amul xam-xam boo xam ne nii kawla Kaolack toll mën naa xalaat benn brin. ou bien une once de développement pour me développer Kaola. malgré tous les milliards malgré toutes les stratégies qu'ils ont dégagées j'ai dit ñëpp au président Macky j'ai dit ñëpp à Mamadou, j'ai dit à tous les ministres de xam ils ont voulu que je revienne Malheureusement, j'ai milité pour Seringo. Je j'ai pas un projet politique avec lui mais Inch'Allah, on rabi dit dinañ ko teg ci ay loxo kon xam nga fan laa mujjee tey da nga dem ak contre sa parti da nga dem xeex ak sa parti. contre sa parti dama dem xeex leen. très bien rey leen plus de quinze mille voix. parce que waaye yow lan nga def. bi ñuy dem ay topp leen ci kii ay topp leen ci kii mel ni benn buur ngeen war ci topp muy def la jàmm yow nga war cee topp. bañ ñu rek bañ bañ ñu rek. très bien. bañ bañ mais taar gi bëri nañ ci yéen bëri nañ ci yéen yoo xam ne yow di nga reconnaître ñii comme yow lañ mel. ji bu mu retrouver quoi ci ay bañ nekk ci parti bi di fëgg table bi bu bu warta nekk si seen non seen non bu ñëpp ne wii est-ce que loolu bëri na si seen parti bi ah non am na fi yanaa de comme am na fi ah loolu en pagaille gis nga la dynamique qu'il y a à Kaolack aujourd'hui billahi mbooy Morgan di nga jombi xamul loolu di nga jombi ah booy ay booy yu tëg ay booy yu tëg booy yu dee yoo xam ne nii tey xoolal booy faale wuñu dara xamuñu ñu gëm développement de Kaolack gis nga man ci mu toll nii ce que je me hmm. mooy que ma montre est réglée à l'heure de Kaolack moo la intéressé nii nii à l'heure hmm. de ah, ah keneen keneen intéressé wu la lulul Kaolack yow Macky Sall sax intéressé wu la nii ñum la ay nañ la jiite yow kaalu moo la intéressé te xam nga ni ñun wax nañ la jiite mënuñoo defal sax seen kër sax seen kër. waaye yow waaye yow ñun dañ di dara. dañ di dara gis nga booy dëkk bi da nga leen di defar nit ñi ànd ak yow defarul nit ñi duñ la àndal Kaolack dañoo sonn Kaolack dañoo xiif ils sont partis gis nga booy ay milliards lañ fa tuur nit lekk ko ba lekk loxo bi mu doon joxe après dem voté sëriñ bi. xoolal dañ leen a gañe département gañe leen commune. waaw yëllu wuli tulli lañ def waaw. pour te dire qu'il y, a, y, a une révolution. Mais là, madame Mimi Touré, je vous donne maire, Kaolak. Mimi Touré, mam. Ouais, boy, y'a même là, c'est ma tiétou, mam, quoi. Moi, y'a, y'a, mom, mom, moujina don guerre, di. Non, du guerre. Mimi du dara. So bëggé dégg ni mu du dara. Mimi yow da nga da nga tok mom kan lam ci ay salon ngeen du waxtan nek ay doomu ndey eh kii di wax naan sama kilo amul ventilo nekku clim baa ngi nii xaar ko non loolu garaaw loolu mimi touré bi newoon sa doomu ndey nekku clim baa ngi non kaolak moo tàng rek kaolak moo tàng comprendre nañ kaolak moo tàng yow directeur voilà non non dama koy wan dama xamul la xamul rek man man duma la wax loolu dëgg ok daanaan nga dëkk bee tàng waa wuy ma dama ne waaw yow mimi yow vraiment mimi sa doomu ndey la sa la sa genn la waaye boy, yan nga laaj sama ciitu maam waaye. ah mais non mais di nga ma wax lan lan moo xew ci diggante bi parce que yow vraiment nag yow da nga doon identifié ci Mimi Touré doon toog këram ngeen di waxtaan naan nga ataayaam yéen nga mbuumam mais tey nga ñëw fii naan ay sa ciitu maam lu mu demee noonu. xam nga lu tax xam nga lu tax yow yaa ngi nii ñëw nañ kër gi ñu nekk fa bokk lekk bokk naan defar ay son ñu ne la da nga am benn son nga ne ma yaay yu ne nga defar ko. waaw. Ah. après nga dem waaw waaw ma dem waaw. dem sa solo. lu tax loolu. parce que <laughs> yoo xam nga loolu des des petits problèmes des problèmes des détails. waaw ma ne des petits problèmes des problèmes des détails. ah moom moo la génne ci Mimi Touré quoi. <laughs> waaw moo la génne kër gi. <laughs> d'accord tontu bi moom moom tontu. looloo. wuy ma man man daal. wuy ma. ok. wuy ma. ça va ça la vie des personnes. Hmm. àddina da ngeen di ànd ci tàqali ko day am. man li mu tëree li ma ko meree te ñun dañ koo topp te jàppale wuñu. waaw mais laaj ban jàppale nga bëggoon wax ma nga doon xaar ci Mimi Touré. waaye c'est que ñun ya, dañ ko jàppale ba mu nekk ba mu nekk dara. ba mu nekk dara léegi lan la la war a jàppale lan. mu jàppale ñun ba ñu nekk dara. ci ak ak ban alal. yow ya, xam nga olof jaay lu mu wax. ku jaal moo neex a jàngal yuut. ku ku jaal moo neex a jàngal yuut. ku jaal ok. waaw maanaam. yow soo jàng yow su fekkee da ngaa jàng. yor say diplôme. xam ni yow nga am say vertu. Hmm. yow ñi ñuy fal fii ci ay affaires yeeg ministres yeeg nangam sangam seen ay mentor ñoo dem wane leen ñu liggéey seen liggéey ñu ne kii jara defal promotion la ñu nommé leen booy ñaata décret ñooy génn par mercredi. waaw la ñu fal ci biir sama. ah waaye ma gisee loolu hmm. fal Morgan. Euh, Morgan hmm. bi ñuy jógee Kaolack di ñëw Dakar. ngeen di jaay seen bagage ngeen di xam-xam nga créé nga fi projet maire de Dakar sàcc projet ba waa ji dum dum na ni Mamadou Diop ah Mamadou Diop Mamadou Diop la tudd la boy bàyyi yooyu mu jàll wareeru mu jàll non non <laughs> wax de vraiment créé nga fi projet bu taxaw. mooy ñu fanaan ci tricycle yi. bind non kii nag ki bokk na ci ñu dàq bind projet nag Sénégal naa leen ko waxal. borom mais booy boobu noonu. dañoo toogoon. gis temps yooyu ay ñaata mois lañ def laay man ak yow ci ordinateur bi. billaay. di bind projet nit ñi ñoo mel noonu. laay bind bu day ni ñu yóbbul ko. booy ñu yóbbul ko maire de Dakar quoi maire Dakar. teg ko ci table bi pour ñu <laughs> pour financer projet bi quoi ñu ñu indi Sénégal ay tricycle booy dañoo xëy rek ndekete sa waay sàcc na projet bi jox ko chinois ya financé maire de Dakar financé projet ba ñëw gars yi jël tricycle yi yóbbu ko kii waay lu mu tuddati foire de Dakar comment Pape Diop Pape Diop publicité ko quoi <laughs> rek laay ne wuy ay sàcc na sama projet ba <laughs> mais Morgan Morgan sàcc na sama projet ba sama projet ba Morgan. ma ne. Morgan laaj nañ dem news ko nañ dem. Morgan. sal ah. Sall c'est un Macky Sall bon président. mais comment comment. gis nga Macky balaa nga xam ne Macky Sall defar na pour defar na Sénégal. defar na na nga daal xalaat nag de maa ngi. foofu nga ne foofu nag ah te ñu jàkkaarloo léegi nga ne waaw maa lay déglu. waaw. waaw. non nga ne ne defar na Sénégal yow laay déglu lu mu defaree Sénégal. dégg nga wax nga xam ci Sénégal. non danga ne defar na Sénégal ma ne la nu mu defaree Sénégal explique moi yow yaa wax. damaa bëgg nga wax ma par secteur par secteur fu la neex poser question ma jox agriculture bi. gis nga agriculture bi fi Macky Sall fekk agriculture da ko fekk ci ñuy wax ay insécurité alimentaire. Ah. Macky Sall yóbbu ko ci sécurité alimentaire. comment. dëgg su naan insécurité alimentaire comme ça veut dire que production bi sox doy. Mm-hmm. Macky Sall booster production bi. comment ba nit ñi dem ci sécurité alimentaire tey may ma rek ma ñëw. bu ñu weesoo. xam nga nan la dafa créer ay projets yoo xam ne tey. Mm. projet yi dañoo toog bu fekkee ne matériel agricole la mu jël ay padayer ak ay affaire yooyu. lu projet bi tudd. affaire semence lu projet bi tudd. para ah. padayer padayer para waaw padayer un padayer deux. ok Goana ak Reva fii la ko fekk wala fekk ko fi. non Goana ak Reva temps kii la temps Ablaye Wade la. fekk wala fekk ko fi. kan Goana Reva padayer. waaw padayer. non fekk ko fi. moom moo fekk Goana ak Reva.

non suñu demee ba ci bëri local di jar bi huit mille cinq cent loolu c'est quelque chose. riz local bi. Ah. ceebu mbay mi ceebu vallée bi léegi ay saako bi huit mille cinq cent. yow yaa koy lekk. loolu ay problème la. yow lekk. ah lekk. kan ma wallaay ko waatee lakk billahi wallahi wa taalaahi joxoo ko sa jabar wallahi joxoo ko say doom yéyuñu ko billahi yéyoo ko. xoolal yéyoo ma sama kër su ma newoon sama kër ma war na saaku ceeb bi. te léegi nii dinaa dem kër ma def ko vidéo envoyé ma ko. yow yow saaku mba. soo biir bu rëy bi moom ngay lekk huit mille cinq cent bi moom ngay lekk yow moom moom la Macky Sall di lekk ah. non non laaj loolu góor xaw ma. mais man buy bay kay ba yóbbu ko huit mille cinq cent xanaa war na cee lekk moom tamit. no moom da koy lekk Youssou Ndour moom la gàddu woon. Youssou Ndour moom la gàddu woon. dafa bëri ay kon Macky moom. benn jour local bi lay lekk ah. benn jour Youssou Ndour mos na gàddu saagu Rixel di publicité ceebu mbay mi ne dee leen ko lekk je te rappelle ci concert boobu. ah d' kon Macky moom lay lekk Youssou Ndour moom lay lekk yéen ñëpp APR moom ngeen di lekk. non non eh Morgan dëgg ma bu ma bu ma wax loolu ma. Ah. man moom laay lekk. moom sa président moom. wóoruma lolou la wuma sama ceetu mam man xoma ci dara d'accord ok ah lolou salam dit dire moy agriculture loolu mooy agriculture ah. renforcer kër kan. jàppale baykat yi renforcer leen laay agriculture outal leen ay financement da nga ñu waxoon autosuffisance en riz mom ngeen def ci terre yi partout ñun dañu gis c'est c'est diamétralement opposé ak lu ñu gis corona dafa am le président bàyyi fi ceebu local bi dem port wàcce fa ay tonu tonu ceeb di dox di njaab nii ñu koy wane muy njaab di ñu won ay ceebu jàmbur ceeb bu ñu exporté. waaw xam nga lu daal exporté du moins lay loolu lan lay signifié bu mu amee feebar. lépp di kii nga dem jël importé ceeb ay ton ton ko ci port bi di ko distribuer ana riz local li riz local bi may wax. waaw yow dafa yomb. bisimilah xam nga dafa yomb. rien que. rien que soble bii nga gis nii. wallaay ceeb bi ceeb bi ceeb bi ceeb bi ceeb bi. maanaam ceeb bi ceeb bi dama lay jox dama lay jox exemple bu non wax ma ceeb bi nii ceeb bi laa la wax bu daw ma feneen ceeb bi. yaa de yaa de yaa des yoo xam ni. Oh. dañ ko def pour mën a couvrir. waaw non laaj. moo gën moo gën. ceeb la nekk ceeb. dama ne la même tey jii nii tey soo ñëwee au Sénégal la fi fekk ñetti programme yoo xam ne ko uniquement pour la production en muy aussi tamit ngi fi des programmes on n'a pas encore atteint l'autosuffisance en vie. mais auto des programmes koy atteindre autosuffisance koy atteindre en vie. atteindre en atteindre mais mais ñu mais ñu ngi doxal le projet Prakash le programme Prakash balaa moo jeex ñu atteindre l' autosuffisance en ñaari at moo leen fi dese. Morgan Morgan. dana la ñaari at moo leen nga ne ñaata at moo ñu ñaari at. waaw. léegi nga ne ba léegi projet autosuffisance en riz kon waa ji doon amul. non non non non non non dama ne le projet là c'est un processus qui continue. l'état est une continuité képp ku ñëw boo bëggee nga continuer projet yi soo bëggee nga arrêté soo kon du woon moom quoi autosuffisance en riz bi. Macky Sall Macky Sall Macky Sall li mu ci agriculture durant ces douze ans là durant ces dix ans président dafa ko ko fi. non parce que yow yaa nekk foofu di wax loolu Abdoulaye Wade tam même chose la ay gars yi doon wax même chose. dama lay wax leer wuy ma dama lay wax lu leer. su la neexee dugalal keneen koo xam ne nii ci agronomie la nekk ñu waxtaan ci man li ma lay wax ragalu ma ko. affaire bi du ay chiffre laay affaire bi dañ lu ñuy gis la lu ñuy gis ceeb bi ngay wax dañ koo gisul ci kër yi dañ koo gisul fenn ba pare dafa am lu ñu naan corona ngeen indi ngeen dem jël importer ceeb loolu laa lay laaj ne la comment ceeb bi nekk fii di jar huit mille francs président bi war a joxe le bon exemple dem di importer ceeb di ñëw di ñu ko indil di ko tasaare loolu la. parce que bi corona bi amee xam xam ñun amuñ ay réserve en riz fi ñu toll ci wàllu production dañuy produire jaay faj seen i soxla ñuy lekk tandis que soo demee ci yeneen pays am nañ ay réserve en riz yu fa nekk ndax dañoo gën a industrialiser ëpp ay moyen moo tax bi ñu soxlaa ceeb segal bi toog na tëj nañ lépp kenn bayut kenn lekkut kenn naanut lenn dong moo doxoon ci ci temps corona bi grossesse parce que teel a tëju teel a kii ni ku ci nekk dañuy ëmb est-ce que comprendre nga. mais nit ñi bitigee yi jaayatuñ mbaykat yi bàyyituñ musiciens yi tëggatuñ kenn amatul dara ñu bëgg a toog soxla ceeb bëgg luñ lekk ñu woote programme d'urgence ñu dem jëli ci ñeneen ceeb bi indi ko c'est ça la réalité. yow li nga wax li nga wax est xel yow wax nga carrément ni même industrialisation sax amuleen ko nee nga industrialisation yéen amu leen sax industrialisation nee nga Macky Sall dama yëgal niveau ba pare nga ne yéen eh, bay dundee ngeen di def bay dundee programme bay dundee loolu nga fi wax léegi de yaa ko wax ñëpp a ngi déglu. man say wax laa. dama ne la. say wax laa utiliser yow yaa ne Sénégal gars dañuy bay dundee li fi nekk amul ay réserve amul dara dañuy bay léegi lekk ko léegi mu jeex léegi ñu ñu yóbbu ko duus si am wax loolu non yow yaa wax loolu si say wax. waaw non dëgg la waaw mais dëgg da ngay Morgan Morgan da ngay déglu ma wax da ngay déglu de li ma la waxal c'est très clair lépp c'est un processus nit da ngay judd màgg màgget dee dans le processus projet yi judd nañ judd gu rafet ñu commencé leen di doxal nag ci phase boobu lañ toll pour ñu atteindre leur vitesse de croisière bu ñu demee ba ah bu ñu demee ba nga xam ne projet bi jël toute son ampleur nit ñaa liggéey carrément tout les choses marche ci la ñuy mën a toog di am des réserves en mais quand mais tollaguñ fenn foo xam ne kañ. Morgan Morgan bul ñu fontoo ñun Sénégal xoolal ñun Sénégal lañ nekk yow da ngaa daw bàyyi ñu ñun ñu toog fii Sénégal di ko ñaxee ñun xam nañ ni ceeb jar xam nañ ni projet yi di dund ñun Sénégal lañ nekk ñun demul fenn. Macky Sall mi ngi liggéey ti li ma la waxal ni secteur boo jël ma wax la li mu fi liggéey. mais non non non non li yow déjà li nga wax nii moom moom vraiment ku lay déglu am xel ku lay déglu am xel mënu la mënoo ko yóbbu ku lay déglu rek même ku newoon affaire ànd ak yéen sax di dégg li nga wax nii xam ni réellement amu leen vision vraiment vision euh, agricole sax amu leen ko parce que vraiment. autosuffisance yi ñu waxoon nga naan ay affaire la léegi yow maanaam yow da ngay jur doom gis say doom mën a màgg. après fi ak cinquante ans wala soixante ans pour mun la dimbale d' accord loolu. waaw damay laaj ma laaj la benn pour wane ne progression dafa am. comment sañ ta bañ sañ ta bañ sañ ta bañ ñaata fan lañ ko dugal. ñun ñaata fan lañ dugal bu waay wow ma la fi ay affaire kër geeg rab sañ ta bañ ak. non dama lay laaj rek. non wuyu ma dama lay wan rek. sañ ta bañ wuyu ma sañ ta bañ yow rek laaj. waaw dama lay laaj ne Macky tey. damaa jàpp sa gars yi daw affaire koo woo mu daw te yow laa woo ngir yàlla dimbaleel Macky Sall génne ko ci ngir yàlla rek amul. sant ba wuy ma wuy ma non condoléance la def na vingt ans. kaay fii li ñuy wax nii man ak yow la dama ne kaay taxaw Macky Sall lillahi wa rasuli vraiment yéen ñu muy àndal xanaa nag dina am kenn ko am argument ngir yàlla. laaj sa wuy ma wuy ma kon yéen autosuffisance en riz bi di ngeen fi ñëw def fi ñaari mandat ba mat te doo leen ko matal kon maanaam ay kàcc la woon xam nga lu tax l' aliment de base du Sénégal c' est le riz waaw quantité de riz yi nga xam ne moom la ñu mën a soxla di ko consommer annuellement soo xoolee en terme d' hectare en terme de matériel en terme de capital Sénégal atteindre son benn vitesse mais avec les aménagements yi nga xam ni ñu ngi koy def dans la à chaque fois ñu ngi teg ay projets ñuy aménagé ñu instruire banques yi banques yi ubbi le capital dugal ci baykat yi di leen lebal ay xaalis ñu toog def tout les chaînes chaînes de valeur yi transformation yi lépp ah man ci sama bopp ñëpp nga sentir ni effectivement la machine elle est bel et bien en marche. yow ci sa bopp. tey jii nii sentir ñi laaj Sénégal ñi fi nekk fii ba xam kenn ñu mën a ni li ngay wax ni machine bi eh, mu ngi en marche. yooyu ñu mën la tegale bi ñu ko wax. Ah. machine moo nekk en marche. Ah. ban machine. booy yow xol Morgan Morgan yow mënoo nekk Europe gën a xam gën maa xam Sénégal Sénégal machine bi mi ngi bàyyi sa détail yi mun nañ nekk Europe dañuy joxe dépense xam nañ lu ceeb bi di jar xam nañ lépp dara umpul dañuy joxe dépense. yow fooy ah yow fooy joxe dépense dañuy joxe dépense Sénégal joxe dépense Sénégal mais c'est clair laaj défendre li nga. li ngay ah. wax yow ci tâtonnement bu métti nga nekk. léegi da ngay wax li ngay wax. Morgan neex ngeen laaj. Morgan affaire programme. bàyyi terewuma la. waaw mais Morgan waaw Morgan. pour te dire la réalité man ci dans mon domaine man li ma la waxal nii du ma titubé dama lay jox programme national chaîne euh, valeur riz. comprendre nga amélioration production agricole yi mais yow dafa am ay programme yoo xam ne day dox ay patayeer ah ay paysan dafa bëri ay projet yoo xam ne yëpp c'est pas concret li ngay wax ni yëpp ay wax la rek wax rek dama ne wan ma ko ma gis wan ma ko ma gis waxan wan ma wan ma ko léegi loo bëgg mu wan la dama ne sénégalais yi lekkuñu riz bi dañ koo sax gisut dañ ko sax gisut riz vallée bi déjà riz vallée bi déjà pour nga togg ko c'est tout un problème tout un problème da nga Morgan Morgan Morgan Morgan da nga koy eh, eh, waxal Morgan Morgan c'est faux ce que tu dis en train de dire là c'est faux ah. c'est c'est faux et c'est faux. Mais explique-toi. Si tu dis que le riz de la vallée est un riz très consommé. les marques fabriquées, c'est au niveau local, dans le riz, kenn mënu la ko wax kenn nag ba nga xam ni y' a des projets yoo xam tey nit ñi benn benn benn benn wax ma trois rek trois li ñu tudd. c'est ça tur euh, tur Rixel. Rixel. Rixel. Rixel. Kumba Noor Thiam. ah Kumba Noor Thiam. Kumba Noor Thiam bu waxee bu dee da ngeen di am na benn sénégalais bu mën a seede ne mi ngi lekk risel nama wax kan moo fi lekk risel fii ak kan ak nga ne lum beneen ba beneen bi lal sa bopp de. ah bu dee risel ñëpp wax kan moo fi lekk risel kan moo fi de ay lekk risel seen kër ak ak ban. Kumba Noor Thiam. Kumba Noor Wow, ya ilaha illallah wa kuma kan mo fi nek kuma nor cham ak kan ah koderi koderi waaw boy dafa bari dafa bari ay ci yo xamne li morgal man dama lay waxal lu leer gaay nek ki ni wax nan ci affaire bi ñak kuma nor am sax amna sénégal mu ne ah kuma nor am nak amna ci xam nga fu mu tudd xam nga fu mu nekk. Hmm. est que xam nga fu mu nekk. waaw moom xaw ma ko moom loolu kay sénégalais yi ngi nii nee nañ ko ak gars yi ngi nii boo demee nee na ñi a dégg ñii ñi ngi ñi fi ne Sénégal lañ ne ñeneen ñi ngi koy doog a dégg dañoo joom mi Kumba nor Thiam. xoolal. Rizal. Kumba Noor Thiam. xam nga nu ñu ko tuddee CNT la. soo ñëwee ba Ross soo ñëwee ba Ross de ngay jàdd sa gauche ci station bi. foofu la usine Kumba Noor Thiam bi nekk. xam nga man dama dox man li wax non non ceeb moom soxlawul. non damay ceeb moo lay si ceeb doo dox di ko ji. mais su fekkee ni yow actuellement production locale bi ci zone bi la mais zone bi da consommer. mais laaj li wax tam chat tat tat tat mais est-ce que yéen Sénégal déglu leen waa ji xaw ma dafa tox xaw ma daan naan man xamee ma ko woon déglu muy wax mi wax ay waxu dañoo jëlee agriculture fu sori indi ko moyens yi matériels yi bla bla ne lu ñuy lekk bay dundee la ci local boobu localité boobu la lam ñu ne ko warax mu jeex moo tax ñun duñ ci jot léegi pour nga gis ku Manor Thiam foog nga dem ba village ku Manor Thiam pour mun fa gis benn saako ku Manor Thiam ndax lu luñ defar lekk ko ba pare mu ne président bi ku liggéey la ku développé agriculture la jaajëf tàccul leen ma kii waay fiiru nit la mais tuuti ñu tàccu la bu ree bu ree bu ree nekk ci sa dëgg rek ñu tàccu la vraiment macha allah mhm, bisimilah. Eh, xam nga yow sa différence yow man lan yéen seen xeex bi yëpp bay bay dundee la loolu ngeen loolu ngeen développé ah bay dundee lool liggéey rek. xam nga sa différence. xam nga sa différence Ah. bravo gars yi nee bravo ah. Macky Sall. man sa différence no mais. sa différence doo wuy gars yi. bravo. nee nañ jàmbaar dama la leen di Macky Sall jàmbaar ngeen. fay dundee ngeen fi créé. acca gars yi lay bravo. d'ailleurs sax am na benn projet boo xam ni USAID moom moo ko yore bay dundee la tudd. bay dundee ndeysaan. Mhm. am na projet bu tudd noonu. d' accord. financé par autosuffisance en riz bi moom rafet ngeen ko moom lajj ngeen ko quoi ay kàcc la woon. processus la quoi. processus la quoi. non ñun ñun ñun autosuffisance en riz. c' est un programme qui existe jusqu'à présent. te am na ay projets yoo xam ni Macky Sall na ko fi financé ko à chaque fois que suñu atteindre les objectifs wala les résultats dara manqué ci mu yokk phase bi. tey jii nii am na projet bu bees sax bu mu initié bu tudd PNAR. mu boole kook yeneen kii ay PDCVR uniquement pour def des aménagements doter nit ñi de matériel de capital financier pour ñu améliorer la production en riz dans sa qualité et dans sa quantité. Ah. li ma lay waxal nii ah, ah, à à dix huit mois dix huit mois mu jeexal reñam à pour reñam jeex. c' est que yéen vous avez un problème de règne vous avez un problème de temps avec Macky Sall. bien sûr Macky ñaari mandat la. ci li ngeen nekk moom nekk ko ci dama lay waxal rek. gis nga àddina ku ci nekk da def ton temps après nga dem. Ah. Macky grand président il sera toujours un grand président. comment mais ba. Macky va sortir. laaj da ma c'est grand président ma lay laaj ba léegi wanoo Sénégalais yi lan moo tax nga ne c'est un grand président côté agriculture moom vraiment tu m'as pas convaincre woon convaincre woon réellement. xam nga xam nga lu tax xam nga lu tax say appréciation du ma ko jël en compte. mais Sénégalais yi ngi nii. maanaam non ci n'es pas très bien outillé pour mën ma bu mu amoon kenn koo xam ne man ak moom mën nañoo waxtaan ah keneen nee na nee na ku ma sidd jaam na lekk ku ma ci agriculture nga jàng agricole expert nga waaw waaye boo xam ngeen di ngeen di sant ci ay chiffres ci ay lettres ci ay ci ay ay mots ci ay termes quoi <laughs> laaj gars yi dañoo xiif. Hmm. gars yi newuñu fi ci ay termes li ngeen di naxee sénégalais yi moo jeex ay affaire de termes ay. jërëjëf xam nga def euh, euh, dama ne. ñun dañoo bëgg. xam nga def ñun ñun wax. jëlal benn jëlal benn secteur. ma ne jëlal beneen secteur. waaw yow non agriculture moom daanu ko ok léegi déjà agriculture rek déjà laay bu ñu demee même ci gerte. waaw gerte gi chinois yi ñuy rey. ah chinois yi jënd nañ gerte gi yëpp. dug yóbbu port ay tonne tonne tonne de gerte ñooy jaay port ay chinois yi ñooy jënd léegi ñoo àll bi yëpp ñoo fa def seen i seen i seen i di jënd gerte gi di ko def ci ay ba ci bato di ko rawale waaye laay gi la gerte gi bay baykat yëpp jooy nañ ñëpp a jooy. xam nga gerte gi. Hmm. li ma la mën a wax ci gerte gi mooy. li ci président war a def li ci bëri def na. comment. Euh, def un programme de multiplication de semences. Hmm. def un programme de recherche. Hmm. financer la recherche agricole. ñu diversifier effectivement variétés yi. zone bu ci nekk am ay varité boo xam ne daf ci adapté ñu dem mu am ay problème climatologie ay problème climat a affaire yooyu yëpp ak ay problème yoo xam ne baisse de la pluviométrie gars yi tamit financer la recherche ñu defar ay gerte yoo xam ni c'est adapté à la pluviométrie yi baisse. yéen a ko defar ah. may ma rek non Sénégal la ko def c'est la recherche. soo demee ISRA mu am na fa soo demee ak Sénégal si Bambey am na. kon ñun gerte yooyu nan la nan la wax. mais waaw waaw dañ koy dañ doon am. soo jëlee la gerte yi mel gerte gi nan la pour sénégalais ba xam ñoom ñu ngi koy gis li ngay wax nii. waaw mais yow gerte gi bëri na ay fleur onze ay soixante trente trois ay bëri na daal ay type de gerte yoo xam ni bu ci nekk nañ ko fi def di ko adapté longueur cycle bi la ñuy wàññi rek parce que bu fekkee ne wàññ taw bi dafa wàññeeku. dañuy ut cycle boo xam ne nii day adapté wu ci taw bu wàññi ko yooyu c'est des trucs yoo xam ne nii en réalité ñoom def nañ ko te it nag ça percé dans dans la recherche. boo paree ak soo paree soo mu climat. ah problème mu ay ay bay. nga xam ni Sénégal mën na mi sax day nangu kër yi di nangu lépp ndox mënu leen jël ndox sax xoolal trans yóbbu ko jël ko def ay kanal yóbbu ko mu sotti ci àll ba nga xam ni tubaab yi def nañ ko depuis mille huit cent. xoolal ngay wax ay waxu problème. climat wuy ma da ngay tax ndànk-ndànk bu fi nekk bi cobboy cobboy da ngay jël yaa ngi wax wax gerte gi ma lay tegal pareegu ma ngay dem ci ay assainissement yow gerte gi nga wax affaire chinois yi da ngay déglu affaire chinois yi gerte paysan yi dañuy bëgg di jay dañuy bëg di jaay seen gerte jaay bi ñuy jaay seen gerte fi ñu ko teg. mooy normalement Sonacos daf koo war a jënd bu ko Sonacos jëndul ci mbappat mi lay yàqoo ñëpp oui sama boy léegi euh, qui sera président des amis du Saloum euh, Morgan lay déglu Morgan est-ce que di nga mën a pause deux minutes ma évacuer sama gan bi waaw waaw demal demal ah léegi mun nga mite sa voix après maa lay xaaral nga ñëw yow maa ngi ñëw maa ngi ñëw deux minutes rek dégg xoolal waa ji na waa ji nee na ah waa ji na bëtam yi bëtam yi nee na gisul samay bët sama bët yaa kay doo fi génne de da ngay mën a rek. waa demal ñëw demal ñëw. billahi maa ngi ñëw demal seen bopp. yéen a ko gisal seen bopp ñii ñoo Macky Sall ñii ñi défendre Macky Sall dara dara dara nii nag ñii ni mel nii ñoom laay dañu invité ci télé ñu jàpp gars yi paquetal leen ay chiffres ci ay lettres ci ay euh, euh, dénominateur ay nom am am nga gan de am nga gan ah am nga gan xamee nga ma yow de na am na lu ma jox de man la Serigne Samba Tall. ah sëñ Samba. <laughs> waaw waaw waaw. président du mouvement Sen Diaspo Sen. xam naa waaw nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. membre de la cellule de communication nationale ànd nawle ànd liggéey. ok waaw waaw dëgg la dëgg la dëgg grand frère Los sa Los. ñoo bokk ndey xam naa xam naa bu baax grand. voilà. waaw waaw wér na. ça ah. daal nii ngeen di encouragé. waaw waaw jaajëf jaajëf ñu ngi leen di ci liggéey bi parce que lii ngeen di def seen fibre patriotique moo leen laal mm-hmm. ba tax ngeen di ngeen ngeen ngeen di ngeen di wax ci dëkk bi dëkk bi moom ça interpelle tout le monde. Mm-hmm. kon donc ku ci am sa idée bu baax baa nga am lu rafet loo xam ne war nga ko mën a wax war nga ko parce que dëkk bi il faut ay alerteurs yu mel ni yéen nekk fi di wax pour affaire yi mën a sotti man dama lay suivre di la encouragé di la bégee parce que affaire yi moom bu ñëpp noppee kon bi du réglé donc je crois que ni ñu lay ñu lay féliciter di la encourager di la wax ni da nga def ay analyse yu pertinente. merci beaucoup waaw te àdduna bi nag loolu moo fi am merci beaucoup waaw lu ñëpp bokk nag lu ñepp bokku dañu war ci ko waxtaanee. noo gisee nguuru Macky Sall. waaw en tout cas man euh, ni ma ko gisé euh moy euh, man li ma jàpp mooy il est à son deuxième et dernier mandat. Mm-hmm. man lolu la jàpp man. man Serigne Samba Tall man loolu laa jàpp il est à son deuxième et dernier mandat parce que nit ñi constitution bi dafa am lu ko rigide te la wax waratuñ fee nekk nag di di di di wax de gauche à droite constitution bi li wax dafa leer naññi les assises son là moom ci boppam li mu wax leer na naññi je suis à mon deuxième et dernier mandat je crois que ni nag bu bëggee situation Sénégal normale li mu war a def mooy mu préparer wu qu'il se prépare qu'il organise des élections libres et transparentes mu préparer pour sortir par la grande porte il permet nit ñëw jël réew état continuité la mu continuer bu benen yone mu dem mo am possibilité d'aller aussi bu bi jexé bu ko nexé di ñëw mu préparer mais parce que il ne faut pas mu instaurer une insécurité dans ce pays man loolu xamal gaay il faut pas instaurer une insécurité dans ce pays donc je crois que ni yow il ne faut pas faire moins que Abdou il ne doit pas faire moins que Ablaye Wade yow sénégalais yi fal nañ la ci euh, sa premier mandat nga ñëw ñu faral sa deuxième mandat li nga war a def nag moom wax dëgg yàlla mooy remercier Sénégalais yi njukkal leen organiser des élections libres de transparentes jéem a dem te it nag dinaa revenir un peu aussi Sénégal dama yaakaar ne gis nga la justice est bâillonnée man loolu dama koy wax juste le dire te dinaa ko wax parce que xam tax yow tey jii moom procédure d'urgence lañ dugal ni da nga war a remettre le poste euh, poste premier ministre procédure d'urgence mais kon ci yoon instant bi tey jii tey tey tey tey tey jii premier ministre waroon naa mën a parce que assemblée nationale voté nañ ko ba pare. vide bi fi am nag wax dëgg yàlla lii xoolal yàpp institution yi la ak ak ak salfaañe yellefu doomu aadama franchement. loolu man je suis pas d' accord ba léegi tegu ko fi premier ministre mais ban problème la am réellement ba ba moom moo dindi premier ministre ñëwaat tega bëgg a tegaat premier ministre ñu voté lu gars yi gars yi voté ko ba léegi tegu fi premier ministre mais ban film la nekk di joué en fait moom réellement la. wa mais dama ne xam nga xam xam nga xam nga procédure d' urgence la ñu wax procédure d' urgence xam nga procédure d' urgence boo ko waxee ba gars yi voté la ko ba pare mais kon jarutoon na di ko yóbbu assemblée nationale mënoon naa bàyyi noonu mu meloon rek parce que yow yaa ngi parce que da ngay doon président union africaine looloo tax tey jii ni charge yi day ba nga war a dellu pourtant yaa ngi déroulé te fala go premier ministre affaire yi amatul problème moom il est dans des calculs politiques man li ma jàpp man sama euh, entendement bopp mooy il est dans des calculs politiques mooy lan calcul politique yooyu xam nga moom mooy lan mooy yow tu es nga dem élection locale nga gis ni colonne vertébrale bu Sénégal yëpp perte nga ko. Hmm. donc nag il faut mu préparer pour la recomposition jéem a xool nan lay defaat ba xam affaire te góob ma ci li ma jàpp man góob ma ni d'ici six mois tendance yi mën na fee renversé waat ba am wala ñu andi fi lu tar wala ñu dikk fi nit ñi jamaa wala ñu jox leen parce que nga population sénégalaise. ñu ngi leen nax lool de plan bu mu naxee. pour amaat benn euh, bëgg sénégalais yi bëgg ko stade bi depuis. voilà gagné. le Sénégal sénégalais yi Sénégal sénégalais maintenant c' est une population gis nga boo fi ñëwee. boo leen joxee milliard dañ koy lekk ba mu jeex te xoolal bu heure xalaat jotee ñu dem xalaat kañ wax a exemple de Kaolack war naa yee ñëpp. yi ñëw na ci aux élections avec une manne financière des premiers ministres des DG des députés.

ay Mimi Touré ngay dégg ay ay ay ay Mariama ngay dégg mais quand même ñun daal doon na dëkk boo xam ne xam Dakar à Yoff mais un jeune de 30 moo fa nekk maire un jeune de 30 ans Barthélémy Dias suñu la fii ni nga nga dem ay Thiès da nga fay fekk ay docteur Babacar Diop suñu ay génération la mais pourquoi pas tey cette ancienne classe politique bi nga xam ne ñoo fi nekkoon depuis Senghor dañoo war a dem à la retraite bàyyi jeunes yi ñu travailler dëkk bi du mën a dox il faut que ñu def loolu il faut gis que seen li ma leen wax nee naa leen mënuñoo musa ko waane ba instant bii nii population yi bëgg parce que yow dama lay jox benn exemple tey yow au niveau de Kaolack tey dans l' opposition ñu investir ab boy bu am ñu ne kan la war a jàkkaarloo ñu ne Mimi Touré Mimi Touré am na soixante dix ans wala soixante ans mais différent âge ko xool doo loolu yow loolu nan mën a gisee li man li ma gën a soof ci nga xam ne dafa war a dem à la retraite nekk fii ñii naan day nekk ay président assemblée nationale ba léegi à quatre vingt ans à quatre vingt ans nga xam ne tey jii yow sa mandat à quatre vingt boo ko joxee junni doo ko dénk junni ndax xam ne boo ko naan na boo ko joxee mu réeral ko moromu Ablaye kon donc sa gis nga dëkk bi dëkk bi da xoolal dëkk bi xam nga lan moo fi war a am conscience citoyenne bi nga xam ne moo fi am gars yi dañ ko war a matérialiser Macky Sall bu bëggee jàmm ci réew mii na organiser des élections libres et transparentes mu dem yoonam affaire dem sinon il va instaurer une insécurité totale dans ce pays te nag moo wax deug yalla waru ko baye ab pousso mu reer ci loxo mi ñun ñu koy interpeller à la raison mu xamni wax deug yalla ñun ay citoyen lambda lañ yo xamni ay patriotes patriote lañ Sénégal lañ gëm donc tay jii ni man j'étais mandat j'étais xoolal man j'étais mandataire de Benno Bokk Yaakaar aux élections de 2012 donc souffle de bañuy ñuy ak Y'en mar man j'étais j'étais j'étais membre actif man Benno Bokk Yaakaar man li fal Macky Sall en deux mille dix man ci laa bokk man man mii sama bopp mais lañ doon lañ doon bañ ca lañ doon lañ doon bañ mais lu ko yées dañ sobre et vertueuse lañ mais ñaata dossier ñoo nekk ci table président de la république mu teg ci loxo moo ko wax ces éléments ont été épinglés dañ leen a jàpp leen corps de contrôle yi jàpp leen ak ay milliards mais pourquoi ñooñu yóbbu leen à la yóbbu leen ci pourquoi yóbbuñ leen ci si parce que kumba am nday moo fi am ak kumba am nday mais traque des mal traque bi ñu fi andi woon mais traque des mal acquis ba ñuy wax ñaata personne la woon nekkutoon ay vingt deux personnes wala wala vingt trois personnes benn kan ci traqué benn nit waaw ñu jël suñuy milliards ñun Sénégal ñu jël suñuy milliards ñun Sénégal dem créé ay commission rogatoire yóbbu leen fu nekk ci monde mais est que dégg bu ni benn dërëm delloo si nañ ko fii kon ñu lay yàpp te ñi ngi xalaat naan am amnistier ak nag dañuy libérer rek dañuy gracier ay affaire yu demee mais kon ñun suñ milliards yooyu ci noonu ne nit da koo jël yóbbu ko kon day ñëw ñun ñun ñun ñun doomu baadoolo yi kon milliards yooyu kon perte nañ ko quoi gisuñu ci dara. traite de bien mal mais kon milliards yi perte nañ ci financé te jàppuñu dara. te ñun dañoo perte ñaari yoon ndax jiñ nañ fi nit na moo sànq suñu xaalis nga def ay commission rogatoire dem bëri. andi woo non seulement fay ngaa yawa kaa ñu dem ñoom andi wuñ ba pare xaalis bi ñëwoon ànd ak kan moo ci dee doomu baadoo la ba nga ma nga kaa jaay bu xëyee amul amul mille francs ñu pañe pour du dimanche. naa dëgg kooku moom moo ci gën a dee. Mm. Mm-hmm. je crois que ni moo tax maa ngi bëgg a tàng sax mais xam naa ni prochaine fois laaj moom xam la jël maa la jël a am na solo laa laaj laaj yaa ngi dégg sañu waxtaan mais boobu ba léegi mi ngi wax ay chiffres mais ba léegi matérialisé wu ko nee na moom ceeb ceebu local bi lay lekk moo ne ceebu lan local bi. nee na ceebu ceebu local bi ceebu vallée bi moom kër moom la ñuy añee <laughs> di ko reeree. waaye day day sóob ceebu Caroline lay lekk bu saf sàpp nii ba. ceebu ndey suuf moo xam ne boo ko gisee xam ne lu neex lu neex dong lay lekk. loolu mooy Caroline Caroline ceebu ndey suuf lekk wang boo ñibbee xees ndax tamaate ja. moom lay dóor de Caroline nag lay dóor booy boo dóoral <laughs> ci Caroline nga. mu ñëw naan ma ay. waaye jaajëf moom bu dee kontaan naa ne bonne mais noo gisee agriculture ma ne bonne continuation. la jëmoon noo gisee agriculture bi tey. est-ce que Macky Sall vraiment am na lu muy développé ci agriculture li a gis. mais moom mi ngi ñëw bàyyi ma jox ko mu yeggale comme que moom partisan Macky Sall la. ñëw non sa xalaat ci agriculture ba pare après man ma jël ko parce que moom day nekk fii di table rek wax bi loo xalaat ci agriculture bi. non man bi ni ma ko xalaatee moom moom ne moom il est très expert à la matière mais eh, ma man xamal la agriculture discours parce que agronome la ingénieur la day ratatate rek ñun lu concret lañ wax yoo yoo laay waaw xama ci agriculture xama man la laa wax ci ni man dama ne agriculture traditionnelle bi ba muy am ci lañ gënoon a am cawarte ci lañ gënoon a am si suñ bopp que ni sax agriculture moderne bi ndax lan ndax ñun suñ ma yi ñun ñëpp xam na ne suñuy maam ay baykat lañ te ay nitu àllu lañ ñun da nga gis bu nawet jotee buñ bayee ba pare dañuy jël liñ bay yëpp duñ ko jaay de dañ koy denc ci sàq mi sàq mi dina la dundal dana la dundal at mi yëpp ba ba ba at ñëwaat te loolu agriculture traditionnelle doomu la woon non lañ doon def duñ ci sonnante duñ ci demal fenn mais léegi yow da ngay gis un milliardaire wala nga gis un ministre boo xam ne dafay am ay propriété terrien la ñuy doon du doon agriculture kese dañuy xoolal dañuy dañuy xoolal dañuy am ay serbe yoo xam ay ndandi naga fay nekk ñuy bay di def seen affaire demee noonu ñooñu tey jii nii ñooñu ñoo rey agriculture bu euh, traditionnelle fi toll nii yow da ngay gis léegi boo gisee exode rural li ko waral moo tax mbay mi daa doxatu ci àll bi moo tax booy yi dañu ñoom ñëpp dañoo def Dakar boy yi nga romb yëpp ñu jaay taas yor ñor mbuus tàndarma bay di jaay ca àll ba lañ jógee non seulement agriculture bi amul amul engrais amul semence amul dara moo tax ñu dem noonu ci ville yi. man daal je crois que ne gis nga bu ñu jàppale woon bu ñu jàppale woon baykat yi nga xam ne ñoo nekk ca àll ba je crois moom moo leen ñu def agriculture bu moderne bi a xam ne boo yoroon milliard doo bay. fi ñu toll boo yor baykat dëgg boo dugg faa boo yor milliard mais léegi baadoo la mënut bay yow mi tey boo ñëwee mënoo dem ci mënoo bay que yoroo ay milliards yoo ay sam, wala ko ay ay ay ay karak ay naka kay. agro business. ah agro business agro business mo xam léegi agriculture legi xewi na mm-hmm. parce que legi da ngay bay ba mu jeex legi xolal lo dundé ya koy lijjanti li ci sa bop mais mënu mënatul la dundal te bu dëkk bu muju bu njëkk am sax da daan dundal keur yi. Mm-hmm. wa sama la ñu oh, mais mais yow wuté nga ak lay ci mbir ci mbiru agriculture la nga wax. yow en tant que sénégalais lambda la ngay dund bokkul ak ingénieur boo ko nekk sa ginnaaw di di foowee ay chiffres ak ay lettres di foowee ay ay domaines. ay données techniques. mais ingénieur bi xaritu président Macky Sall la lu ñu wax neex na ko moom Macky la. Ah, mais mais sénégalais. moom dafa far. sénégalais yi déglu jamono ji nee leen wax lu leer. anamu moom. non moom daa far de moom dafa far. ah mais tey xam nga xam nga man damay défier APRC dama leen di défier. dama ne amuñu bopp. non moom amuñu programme amuñu xam-xam te amuñu lu lu lu prouve loo xam ne dañuy mën a prouver ni vraiment liggéey nañ fi à part ratatati léegi ma dem indi laay. non am nañ xam-xam xam nga lu tax am nañ xam-xam de mais xoolal seen xam-xam dañ ko orienté fi ñu ko bëgg a orienté mais du ñàkk xam-xam de seen xam-xam moom lañ orienté ci lañ bëgg ñoom mooy mooy mooy Macky Sall lañ bëgg mais am nañ xam-xam doxul dina jàpp leen mais jël seen xam-xam wiire ko fa ca la neex loolu mooy loolu la doxul da dina jàpp leen dañoo jël seen xam-xam parce que Macky lañ gëm Macky la ñuy orienté seen i mbir loolu moo xam lan moo xam li ma jàpp loolu moo tax sax mënul am dara ci eh? mais ba pare topp Macky waaw eh. mais moom tey jii dama ne wax dëgg yàlla c'est un homme de principe nit ku am valeur la nit ku gëm boppam la man ak moom benn point de divergence rek yaa ñooy ànd ñooy liggéey ñoo defandoo lépp daal an ànd naw le mooy lan moom pour Macky te man moom man man man du ma ne ma pro man xamal la man man sénégalais lam daalaa boo xam ne damay analyser les les choses en termes objectifs et réalistes man loolu laa gëm li ma xalaat laay wax mais du question du ma wax ngir far wala ñàkk a bañ far mais li ma gis laa wax la justice est bâillonnée dama koy gis parce que dañoo def ay actes yoo xam ne day wane ni justice bi dañ koo tënk. damay xamal ga damay xamal gars yi ne wax dëgg yàlla situation bi gars yi di dund Macky Sall moom mu fi woon na gestion sobre et vertueuse. ay video ma ngi ni dañ leena a épinglé ñu épinglé leen épinglé yu saf saf rapport yi nek ci terroir am yoy nangu ko génne man loolu la merte loolu lañ loolu lañ génne ak Karim Wade ci dëkk bi loolu lañ fi jappé eh, ni ko xaté Khalifa Sall kon donc nak je crois que ni loolu war naa mën a tax mu xam ni lii jaar ko ku ma am nday ak ku ma amul nday man loolu gaay yu accel yi sa ci mag lañ ay day ma na ñi and ak ci mag lañ ay bandi lañ de grand chemin loolu moom laay moko wax te ñoom la ay ban de grand semaine mais saa waay waaw mais yow yow da nga xool da ngay bàyyi ba suba nga jël ma laay. mais ana laay de ma nga di dóor de nee na mi ñëw yow dóoroon rek mi ngi ñëw. dóor fan fu muy dóor. mais laay dina ñëw waay laay moom mënuñu ko bàyyi muy dem di dóori fenn laay laay laay def na woon day tàggu day gunge def na woon day gunge waate di. laay munul demee noonu nag laay. non non. waaw kay kay kay kay yow la xaar fii de. Sonko dafa war a discours quoi dama la soxla. laay. waaw waaw mais ñëwal xaar ngay mel ni ku nekk ci duus ni ah. xool xool. kii nii ah. non waxuma kooku bul wax waxante doo doo doo. bul ko kii nii lan. yow ok lay ñu dem fii lay lay boo gisee tey Sénégal ah. maa ngi nii ok lay. maa ngi dans le dans dans domaine euh, de la pêche. lan nga japp yi Macky Sall liggey nako ba lan nga jàpp Sall liggéey wala dëgg wala wala xam quoi bu fekkee dafa échec ben nga ne sincèrement sama xam tay la mu ko yaa tax dafa échec bu dee amna parce que dama xam quoi vraiment xamewuma la ay genre parti yooyu noonu quoi dans le domaine de la pêche li nga comprendre dans le domaine de la pêche li nga comprendre dans le domaine de la pêche bonne pêche ah géej la jën maanaam maanaam boo nee géej la la nekk ci biir géej gi li jàpp nit ki jumtuwaay ak ak jumtuwaay yi jàpp hmm. gis nga géej yi ci la jën yi nekk ci la fruits de mer nekk dafa am leen loo xam ne nii Sénégal dans son habitude alimentaire ni ci ceeb bëri noonu la ci jën bëri mm-hmm. kon ça veut que normalement boo duggee Sénégal tey ñiy consommer jën kenn mun la wax effectivement du ñu tax ah. kon normalement war nañoo entretenir géej gi de telle sorte que jën yi di si gën a bëri tekki tamit toujours li ma naan la diversité alimentaire maanaam tey nga man a lekk li suba nga lekk nga lekk lii loolu dafa war a mën boobu noonu dafa war a am ba am ci biir géej nga bañ a nekk ci yaboy bi rek yaboy bi nga xam day indi ndoxu siti yow moom bi nga sa ndoxu siti bi yow defe naa yaboy moo koy doon mooy yaa ngi fàtte <laughs> ah nga ma faral ndoxu siti yaa ngi xamoon ndoxu siti say ndoxu sa ndoxu yaa yaa ngi bi nga amee ndoxu yow mi yaa amoon ndoxu siti yow mi léegi après nga xam ne ni ah ah boo demoon soo demee ci ci ci ci kii bi da ngay avant ñu avant nga yéeg da nga am okkatu rek quoi mooy taay sa tànk yi dégg nga léegi. ah hmm. waaw léegi tey li ñu mën a xam mooy gis nga géej gi pour mu bëri jën il faut ñu gën ko draguer am ay ensemencement poissonnier maanaam defar ay affaires yoo xam ni jën yi dinañ ci mën a laaxatu di leen après di reproduire maintenant. suñu defee production bu bari il faut que nit ñi aussi di napp jën pour di ko jaay mais problématique bi fi Macky Sall fekk mooy que nit ñi mën nañu fexe jën yi bari mais jubtuwaay yi nga xam ne moo mën a génne jën yëpp di leen renouveler pour que écosystème bi da mën a reconstitué wu jumtuwaay yooyu fi. ah amu fi ok. comprendre nga ci la ñu nekkee nag ne xaaral ñu dugg ci affaire gaal yi. dugg ci affaire euh, jàppale béykat yi jàppale lépp jàppale nappkat yi finalement bi ñu demee ba nga xam ni loolu problème am na ci la gars yi gën a encouragé les les les con les kii de pêche là nu sax euh, kii yi lay maye pour na napp quoi après le mot va venir. mooy pêche pêcheurs yi ñuy jàpp ci ay ay côte euh, Mauritanienne bi ay. non non non non mooy le fait que nga licence ah. de pêche licence de pêche Maintenant, maintenant problème licence de pêche je suis d'accord d'accord parce que d'accord parce que licence de pêche c'est comme si un match de football match de football bu naan la classé qui qui classé y a des qui sont ay ay plastique kii qui sol ay ay crampons en fer en bees ah ay dix huit ah non loolu mars mënu faa am comprendre nga licence de pêche yi day d' abord il faut ñu ñu jël comme ñu ñu ñu ñu ñu kii waaw ñu configurer licence de pêche gis nga dëkk yi dafa am lu ñu naan ay partenariat dëkk bi day signer un partenariat avec ben ki partenariat économique yooyu comme ñu naan les accords de partenariat économique ak tamit genre kii ni kam moom stade nga may ma nangam at de pêche loolu aussi ñun dañoo nekk ci ay pays yu pauvres yoo xam ni ou bien des pays en voie de développement on ne pas financer notre propre développement il faut que les autres pays yi nga xam ni ñu feneen am lu ñu manqué ñu ñëw ut si ko Afrique ñun ñu joxale leen c'est un phénomène de troc qui existe mais d'une manière très civilisée dañ ñëw ne la dinañ la may benn stade benn gare routière may la

dem nañ ba nga xam ne dañ cee ëppal ndax boo ñàkkee xaalis rek jaay benn licence de presse mooy temps yi ngay jógee fële na rek yore micro bëri yi quoi ay micro yu nga indi woon mais boo kaayaa rek génne benn micro jaay ah noonu la quoi xam nga. Ah. mooy tey may ma la dara. yow laay yow laay déglu de yow ñëpp lañ déglu. ah. waa C'est comme ça. comprendre le phénomène des licences de pêche mais je ne suis pas d'accord la méthode de pêche, la méthode yi utilisée, ça ne favorise pas la biodiversité ça ne favorise pas effectivement la euh, yi ak espèce espèces a dem il pêche les gros poissons les bons poissons qui ci diversité alimentaire du ñu am lu dul yabooy te ku xam yabooy xam ne ndoxu si dong lay indi moo waral chaque jour boo génnee ci dëkk ngay dégg ñu naan aywa samp ndoxu siti aywa garabu ndoxu siti aywa lii et cetera quoi xam nga Sénégal faju ndoxu siti moo liggéey boobu moo gën a moo gën a dox ndax yabooy bi ak jën yoo xam ne jën yi ñoo li ñuy xam ne moom la ñuy lekk loolu li ko indi nag. Ah, ay euh, poy affaire euh, Macky Sall monsieur le président euh, vraiment kii sa nit la. ku la bëgg la ku bokk sa parti la wax na vraiment laj bi nga ci dans le domaine de la pêche moom ñoom sénégalais yëpp ñoo am ay biir bu taññ ñoom ñoo am ay ndoxum siti ay ay coiche corps ay biir buy daw lépp lañ yor Macky Sall loolu bàyyi ci xel sa sa doomu ndaya la koy wax boo ñu dem maintenant. non man man sama xalaat la. waaw sa xalaat la mais loolu. ay ay ay sa loolu même. voilà tu as été au moins euh, sincère. si c'est nga xamal ni Macky Sall foofu tamit am na beneen lajj. donc ñu dem ci dans la domaine de santé yow yow est-ce que. waaw dans le domaine de santé. Ah. santé moom euh, liñ ci mën a wax mën na bari trop mais aujourd'hui li mu tawax ci santé maanaam gis nga tey Macky Sall dafa développé ba développé ce qu'on appelle la santé communautaire gestion hôpitaux yi ak yenn gestion yi yenn yi dégg nga maam mu doon santé mu def un domaine de compétence transféré. jox ko commune pour commune mën ko gérer mais man li ma seetlu foofu noonu te mu doon lu am solo sax mooy que ne tey jii nii par rapport à la carte sanitaire dem nañ ba nga xam ni case de santé yi bareetuñu. Hmm. yokk nañ formation bi yokk infirmière yokk sage-femme yi yokk hôpitaux yi yokk centre de santé yi yokk lu bëri te it nag relever plateau technique. Hmm. bu njëkk ba jalis ay jalis fan la ko gars yi daan defee kaaw lañ ko daan defee wala di dem. Hmm. léegi ñu naa jalis fii. Hmm. am na ci appareil yoo am na ci ay yenn opération yoo xam ne nii yu ci bëri nit ñi daawul ko defee Sénégal boo feebaraan yenn feebar yi comme comme ay ci affaire boobu noonu euh, prostate prostate rek boo ko amaan da ngay da ngay dee ndax Sénégal mënuñ ko defar ah nit ñi am na ci feebar yu bëri yoo xam ne tey jii dañ koy opéré fii parce que. Macky Sall a favorisé effectivement relever les plateaux techniques tabax ay hôpitaux favoriser la formation D'accord, mais nous avons un mix santé de telle sorte que les Covid 19 ñëw Métamé, fi ray na mais tamit li Sénégal. Euh, mais le nag dafa un dispositif de comprendre les tey les li grave avec les ambulances médicalisées avec tali yi nga xam defar

léegi nag foo dem fekk fa docteur ah bu njëkk ba pour nga gisaan ku la piqûre sax da dox ba sonn ah yow seetal benn affaire rek ci temps damm-damm yi ah xam nga yow koo xam ne sa loxo dafa damaan ah sa loxo bu dammee yow même boo ko fajee ba yow Morgan xam nga noo koy xam ne boo boo bu la rek ñu lay mel. comprendre nga ñi seen loxo yi damm ah. ñi seen nii lay def ak ab la ak. waaw ñi seen loxo yi damm. waaw comprendre nga ñu ne noo fii dafa damoon mais léegi da ngay gis ko damm ñett yoon ci loxoom après léegi loxoom nii lay nag ah, ah? ay formation la yoo xam ne Macky Sall moo ko financé daal def ay indi ay ay jinne ay jinne. non loolu sax loolu ñu yeneen dëkk yi ah. non non non. gisoo gisoo gars yi ñu ne Sénégal la dëkk xam nga ñoom gis nga internet seen problème leen la. seen téléphone rek la ñuy man dama dox. moo gën yow xam nga man dama dox man dama dox. <laughs> ma ma ma ah. ok Macky Sall xam ne nee nga. ñoo na ah. indi def formation bi gars yi léegi dañoo forox. léegi lépp la ñuy fajoo mais lu ma jaaxal mooy lan moo tax ñoom duñ fajoo fii. lan moo tax duñ fajoo fii ci dëkk bi. ñoom non man ah man moom dëgg-dëgg man li ma gis daal. man daal musuma daje kenn ci hôpital bi yeneen xëy na ñoom ñu ngi dem di faju ji foofu mais man leeru ma waaw man daal man xam nga lu ma xam maa ngi feebar di faju man li may feebar sax bëriwul xam nga man soo problème loolu la Morgan <laughs> ah man man Morgan man bëgg naa Kaolack bëgg Kaolack musoo daje ñoom fenn ci benn bëgg naa Kaolack bëgg Kaolack boo xam ne booy su feebaree Dakar damay ñëw kawla su ma yegsee Kaolack rek jaratul may dem hôpital féer naa. ndeysaan waaw mais ñu nu ñu développé <laughs> bi ak nu mu grave yëpp yow ne yow ne musoo dajeeg ñoom te amu xamoo mbokk bu dajeeg ñoom tamit musoo dajeeg ñoom xamoo doomu nday bu dajeeg ñoom wala mbokk bu dajeeg ñoom ci daal yi ñuy faj. musoo cee dégg kenn. Morgan Morgan da may génne nga live cinq minutes ma ñëw la sama bureau laa nekk nii te maa ngi yor sax ay nit ñoo xam ne actuellement ñu ngi may xaar. dama débranché ma tuuti rek cinq minutes booy ma ñëw maa ngi yow a ajat jag tey cinq minutes nga may débranché coupé ma <laughs> maa ngi ni jël suivre non yow kay yaa coupé yow yaa dem man ma continuer man nu may def non coupé la mooy may kaw kaw ci kaw quoi ci kaw nu may def ah waaw <laughs> Macky na nag yërëm naa ko quoi non Macky Sall ku Macky Sall ku ma yërëmul rek barki Seydou ndeysaan xoolal laay nu mu bëggee Macky Sall Macky Sall ko dara laay jàng ba ne ar yor ay diplôme mais sax défendre Macky Sall ndeysaan mënu ko sax défendre chat kon Macky Sall défendre ko mooy vraiment da doon l'avocat du diable Macky Sall boo koy défendre boo taxawee di ko défendre da xale yi sax dañ la yàq da ngay doon garab bu daanu ci penc xale yi sax ci yow la ñuy jànge yéeg. lañ saga sa mam ñepp lay saga bu bëggee mag bu bëggee ñàkk fayda rek na ñew ci ay ay xalé yu taxaw mu naan day défendre ay programme Macky Sall wala bilan Macky Sall billahi da ngay gis xalé yo xamni bobu dañuy bayyi fàtte ni kii mat na leen bayyi wala mat na leen liggéey dinañ saaga maamam ba mu tooy c'est grave non Macky Sall nag moom yoo la laalaake ku ko la yaq ku ko la yaq bo bo nekk ci wetam yàqu boo ko dende ak mom yàqu boo koy waxal yàqu boo koy xeexal yàqu booy dañuy dem ba xam ne yow vrai fenkat nga quoi fenkat nga nekk mag nii nga booy di xool di xam ni vraiment yaa li nga wax fen la waxoo dëgg mais c'est incroyable man musuma gis président bu mel noonu président boo xam ni wër naa partout pour jéem a lijjanti benn apériste bu ko mën a défendre noble bu taxaw défendre ko ci ay argument mais amut amut <laughs> ah yàlla nañu yàlla musal ci Macky Sall waaye wuu mais xoolal laay li mu fi wax nii sax booy yéeg ñëpp mu ngi mel ni garab bu daanu ci pénc booy yëpp ci moom la ñuy jàngi yéeg waxu fi dara dara dara dara eh, <laughs> c'est incroyable te kii conviction lay waxe parce que au moins bu fekkoon day waxee nii ñu ne au moins day wax parce que dafa am intérêt mais Macky defu ko dara joxu ko dara te pourtant dafa am amour boobu la ko am ci Macky Sall ba ñëpp ràññee ko ko mais mënul sax défendre Macky Sall te pourtant daa ay bac plus la de kii ni ngay gis ni ingénieur agronome la dëgg la de kii bu muy bu muy jàng di daggi diplôme suñu grand la du sax suñu morom suñu veste grand la moo ñu jiite woon moo moo doon encadré groupe bi moo ñu doon jox ay conseil suñu groupe maanaam bu ñu demee tey ba ba officialiser ko ba tey mu nekk ay këyit c'est grâce à laay lay moo ñëw ci groupe bi fekk boobu rab bi ay affaire underground la ay affaire dem concert tàngal ñëw wàcc laay moo ñu xamal ni il faut officialiser sa mo moo waral tey jii lépp moo ko créé ba ci yaana maa rek lépp tout il est là il a il est borom bopp la borom bopp tubaab yi damay damay je me rappelle fu ne leen doon ci àdduna di ko jël ci ay projet bindkatu projet la borom bopp la anak mom fune fu ne ay autorité diko wo mo lay wax ni Macky Sall sax falowul jamono Ablaye Wade jamono Mamadou Diop ju noonu Pape Diop sàcc na fi projet Pape Diop ci bopam sàcc na fi projet projet tricycle yeen di gis non mom moko bindon mom moko bindon sama kanam ay mois mu nek ci ordinateur bi ordinateur groupe bi groupe keur gi di lay da ci nek suba bo goudi di bind bu mu ko jele ba mu mat dossier yu mat seuk mu def ko ci ay clé génn ko def ko ci ay projet boobu mu def ko ci ay clé xoolal tout financement beeg lépp ñu rem ba bureau euh, maire de Dakar comme euh, Pape Diop ñu jox ko ko Pape Diop xool jaaxle ne boo c'est bien nangam après waaw jël projet bi ne da ngay consulter moom ak ay ay borom xam-xamam ak xoolal dañoo xëy gis Pape Diop wootewul wootewaatul për Pape Diop jël sàcc projet ba muy muy mairie de Dakar moo ko créé ñu jël tricycle yi dem jënd jëndee ji ko euh, lu mu tuddati Chine indiko ko yóbbu ko pavillon C xaw ma bu nekk euh, foire gars yi rangale ko foofu télé bi di ko wane RTS 2 euh, RTS 1 xam nga ndi muy gloire rek dafa sàcc projet jàmbur ñii moo tax Sénégal duy def naan les hommes qu'il faut à la place qu'il faut c'est triste c'est triste kon Sénégal lii lépp nag bur wane ni Sénégal sincèrement ku yeewul ci yow la dëgg-dëgg ku yeewul ci yow la Macky Sall moom lu tax du may wax waxam mooy dafa jeexal doon naa fi mun a jël sama temps di reyante pour Macky Sall mais koo xam ne day dem par force par force doole mbaam day dem kenn mënu ko fay téye kooku waxam wax ci ay waxam perte temps la moo tax Macky Sall du ma wax ci ay waxam parce que pare na jeexal na. lu fi nekk mooy kañ fiy teg muy Ousmane Sonko parce que moo fi nekk même bu dara sax maa fi sës mooy taxafan kese moom moo fi nekk kese moo fi des amul keneen Idrissa Seck jaay na ngorom bu yàgg ma nga fële di cogg fàtte na te moom la la mu nekk tey Idrissa Seck taxaw na fi xas lool ne loolu yàqum xaalis la ne loolu noonu c'est ay c'est budgétivore du amul sance te après après quelque années yàlla toroxal ko la mu doon ni foofu affaire mbirum sàcc la ay mbirum sàcc ay mbirum yàq la ay mbirum saax saaxe alalu askan wi la yàlla nattoo ko ko mu dem daanu foofu mi ngi mel ni douche bi dafa xasaw douche bi dafa xeeñ douche bi dañ ko dafa fees douche bi xoolal mi ngi mi ngi rembat waaye nañu wut ay oto génne ko nañ ko nañ ko nañ nañ wut vidange fosse septique moom lañ fekk ci douche ba mu jonkat tey jii moo moo géré douze boobu muy wax noonu ma nga fa di jonkoon matin midi soir yàlla moo ko nattoo loolu ci la toroxee ba faw Idriss Seck moom waxatu sax politique ci la toroxee ba faw xaw ma kan la yàlla toroxal ba benn niveau ba nga ne sax nima ma Idriss Seck ma këyit këyit këyit bu sax kenn du ko sànni Idriss Seck këyit bu vierge sax kenn du ko sànni Idriss Seck wallahi la azim Macky Sall moom mais sama gars yi ma laaj leen kan moo fi des keneen kan moo fi concurrence ak <laughs> Ousmane Sonko kan na kenn wax kenn rek kan Ousmane Sonko yàlla moom moo maanaam moo yaatal yoon bi yàlla moo moo ko jox chance boo xam ni loolu musul am musul am xëy na ak Abdoulaye Wade amoon na ak Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade bu ñuy dem vraiment Abdoulaye Wade moo fi desoon. tay ji Macky Sall Ousmane Sonko kessé fi des amul kenen, kenn mënu wax kenen du du sax kenn du leen tollale xeebuñu kenn mais kenn amu fi way Ousmane Sonko jamono ji ci politique bi kenn ña fi mënon nek am fi tuuti doolé Macky Sall mo len toroxal mais bu mu di toroxal xamul won ni bu len éliminer Ousmane Sonko dina ñëw wallaay ma ngi yow jël la yow xam damay bañ boy yab la xana ma jël la rek ñu wax ci kër gi ak sañu jamono retan parce que fu ne man yow nijaay nga tons nga montagne bu tej bari bombu te man gis na boy yi di la gal gal galakal boy yi di jàngee ci yow yek damay bañ boy yab la de xam na ni ab kilifa nga soxna damay ragal soxna si di ma sétan di ma méré nan ma sama jëkkeer ji nga ñëw yobbu ci Instagram bi ma gis ay xalé yi toy xep dogu juddu japp ko di yek ci kawam ak di ko diko ko bu ko gonalo loolu laay bañ waaw loolu laay bañ quoi laay billaay ban bëgguma <laughs> soxna si di ma woo téléphone di ma menacé naan ma sama jëkkër ji ni nga ko tabaxalee fii yow yow yow moor mun war nga def loolu yow ah yow laay ak fu ngeen jaar nga jàpp ko yóbbu ko ci internet ma gis ay xale yu ndaw 17 ans 18 ans 20 ans jàpp ko di ko saaga ñi di xëcc caaya ji ñi naan ko pa pa pa sa caaya ji ñi naan ko waaye defaral sa sa sa tubéy ji ñi loolu laay bañ laay laay ngir yàlla rek laay bëgguma après soxna si woo ma fii di ma menacé waaw ne dama laa toroxal ne dama laa jaay askan wi vraiment laaj jàpp ci rek jàpp ci xool naa ba xool waa gis naa booy ni ñu lay duggee nii neexuma daal gis naa booy ni ñu wax ak yow neexuma dara seddu sama xol te maa ngi koy wax ci kaw nag maa ngi koy wax soxna laay di suñu jabar ñun ñëpp yàgg ñoo toppatoo yàgg ñoo bégee vraiment ñi ñëw ci kër ga ak groupe bi nu mu day toog fa lekk fa naan fa nalaw fa njar yi daw ah yàquma ko nag laaya ngi nii téye naa ko mu ne day xeex dugal naa ko fi munu fi wax dara boo yaa ngi koy jàpp di ko saax puudar nañ ko koloj nañ ko xoj nañ ko te laay yemul nag bu ma ko dugalaatee fii lu ko dal du man de wax naa ko nag tel naa ko wax soxna si tel naa la ko wax nag jum sàmba defuma defaanuma laay moom moom moo dul dee ci gàcce moom moo dul dee ci gàcce waaw naa ko dugalaat léegi nag pour muy clair xam nga mën nañ ma woon ay nu nga def laay ni nga def sama jëkkër ji vraiment euh, Mohamed lii rafetul moom laay sa mbokk la laay démb ak bërki démb waroon nga ci xalaat ah, nga dugal ko parce que laay bu ba léegi kenn xamul la muy wax kenn xamul la muy wax laay laay waaw waaw ma ne <laughs> di ma di ma menacé. sa doom yi di ma woo di ma menacé loolu lay bañ. naa ay sëñ Papa nga jàpp waaw non pour mu ñu xam loolu quoi pour xale xam loolu. non moi je politique. waaw xam nga doo xam ne je suis politique. Hmm. man dara dara dara dara dara feesul suñu bët. Hmm. Euh, su su su nekkee dafay baax. fi nekk aussi dafay baax. te mooy indi nekk bi mais la nga liggéey parce que laaj dama gis ne non man yoo xam nga Morgan. Hmm. Morgan. gis nga bu mënoo ma la wax. xoolal maa ngi nii sama di liggéey ba tey. gis nga. Hmm. comprendre hmm. maa ngi nii di liggéey ba tey. soo mel ni yaa ngi xam nga lan Macky Sall mënul la jël même deux ans yi ko dese nii dix mois yi ko dese mu jël la au moins nga nga agriculture parce que expert nga. ah lu Macky. xam nga yow expert agronome. Ah, ma ah. euh, euh, Morgan. waaw. Morgan. gis nga Macky Sall. Macky Sall. bi yow. on fait comme ça Macky Sall bi muy jël bi muy jël réew mi dafa am ñen ñoo xam ñom la andalon fight fight fight ba jël réew mi c'est vrai que nag gis nga une nomination nomination bo mënda gis. Il y a une partie euh, étude mais aussi il y a une partie confiance comprends nga C'est un mot, Hein mom. dans sa confiance ah dans sa confiance euh, gars yi la gën a ñi mu jegeel ñooñu la gën a ñu gën a gëm comprendre ah. loolu mënoo dara léegi ñi mu gëm aussi di jox poste yu baax mu des yeneen poste ñooñu ñoom ñoo war jël seen ay nit jox leen ay poste est-ce que mën nga gi chaîne la chaîne la quoi. chaîne ay doomu ndeyam yi muy taf. doomu ndeyam yooyu yi taf noonu la quoi chaîne ay chaîne ay maillon la quoi. mais mais effectivement noonu la demee ah question bi fenn la. comprends nga maintenant chaîne chaîne bi nga xam ni moom la am sama sëb. ne quitte pas hmm. xoolal mooy affaire dafa métti ba assurance un mois laa dagg assurance un mois. ndeysaan Mbacké da noonu la expliqué. waaw ñun ci neewoon Saara lépp ñoo ko des. amul problème la nag ñun soxla ay consommé soxla dara mais suñu bureau yi assurance yi fi mais bind leen agrément ngeen mën a amul problème. li ma lay wax. na corruption. non li ma lay expliqué li ma lay amul li ma lay expliqué mooy chef yaa ngi nii. xam nga mais ana facture bi ana facture bi génn nga xaalis gis nañ xaalis mais gisuñu facture. non mi ngi nii lay hmm. wan. bu dee am na facture rek baax na. bu dee am na facture rek baax na laay. waaw man administration qui fonctionne non je sais ah, mooy facture bi quoi. waaw ah, comprendre léegi. Euh, tout le problème est nit ñi da ngaa war a xam raison garder. ok kii nii supposons ma ñëw jaay sa bi nii ñun ñoo politique andoo mais ñun dañoo gagné man ñu nangu ma directeur de cabinet. Hmm. Serigne Mboup laa àndal. Serigne bu gagné def ko son directeur de cabinet légui ah donc euh, Serigne bu moom Serigne bu moom sa expertise quoi def na la directeur de cabinet. mais boy dama lay expliquer benn affaire. Serigne boobu Boy, kooku au moins xamna valeur nit. ok kooku c'est lui qui choisit directement ses collaborateurs. Hmm. nekkuñu di ko di ko choisir ay collaborateurs am Macky Sall tout son problème il a choisi ses premiers collaborateurs mais ses autres collaborateurs yi mu waroon mën a choisir normalement ay nitam ay yeneen nitam ñoom ñoo koy indiqué et c'est pour des des intérêts crypto personnels. ok ñi jël ay ñenn ñu xam ne ay waya waya lañu ñi ci bëri amuñu njëriñ génnu béy lañ dàq sanguñ taat dàquñ lañu. looloo waral tey jii bañ ko. Mm. waaw mm. looloo waral nit ñi bañ ko tey bañ bi ko bañ nag du dara loolu parce que euh, euh, kii yéen may fayee ko bor sax de nga parce que li nga xam ne nii mooy yoon defu ko nit ñi dañuy ñëw di ko wax loo xam ni dara nekko ci au lieu ñu jël nit ñu baax ñi nga xam ne mën nañoo ci yow ni bañ fayee ko yow ñu ñëw topp ko di ko wax ay nit ñoo xam ne pour seen ay intérêt culturel parce que tel ay individu personnel bureau tamit foofu métti na de affaire bi danger la ah. ah. fay ko bor ba bureau. ma sama mbokk la damaa amoon benn cinq dafa ma ah, fayoon benn cinq mille après. da nga interview fekk la digg cinq mille digg interview di la laaj cinq naa la yónnee ci kanam naa naa la yónnee cinq mille. mais booy booy war na maa jox de. non waaw waaw non nañ continuer waaw nañ continuer naa la jox. foo kay yoo xalaat la teel lii moom ma ma ma defal la ko wér soxna ma soxna ma léegi damay damay problème bi léegi jox ma sama portable bi nekk moom ci lay ne ko na ma jox confiance naa ko wéb cinq mille non waaye yow ma rek jox ma rek man amul problème man boo ma joxee rek naa ko séddoo. yónnee ma ma wéef ko. ma numéro ma wéef ah? ko. waaw waaw mais ma ko jox ma ko Morgan man yow war na maa jox yow. yow war na ma jox de. bu fekkee li ma doon li li doon jël ci yow. laay. Ah? bu fekkee yi doon jël ci yow. ñëw naa Sénégal nga jàpp ma poñe ma na ma sama xaalis yàgg nga koo jël jox ma ma yóbbu la ba gàll jox la boobu laa wàcceeg yow warutoo ma toppaat. Eh, eh. téléphone téléphone bi ma joxoon amul batterie de dama koy wax bo taw téléphone batterie la téléphone boobu dama wër batterie ba son xam nga li la wax <laughs> kon nga pañe ñu ñu ñep ku nekk jox la parce que doon man rek ñu ñu ñep ko doon do ki di wax serigne moom àndul ak état dina serigne sëriñ man man li gëna graw ci sama kan sama digënté ak sëriñ bu man Macky Sall la andal mais Macky Sall dafa def choix bu bon ma bayiko fa ma def sét différent sëriñ bu Mboup ñëw ànd ak mom gis nga sëriñ bu ñun ko ay ñoo porter candidature bu indi ko fofu gis nga tay problème dima am tigi tigi tigi tigi tigi tigi ah c'est mon problème à mon fort intérieur ndax sëriñ bu man ak mom dañoo bokk benn combat ñu bokk kaw la man la ni ci sama dérèt man su feebaree su ma ñëwee Kaolack sax wér man bëgguma lu kaw Kaolack baax Serigne Mboup aussi pare pour defar Kaolack mais Macky Sall aussi ci sama xol la léegi loolu laa bëgg nag yéen internet yi ngeen dimbale ma jàppale ma wax man nan laay def. Hmm, ok noo war a def quoi nga bàyyi mag mais lay doo ñëw ci Ousmane Sonko ma lay yow sax xam-xam dama ko xam quoi lay doo ñëw ci Ousmane Sonko ngir yàlla ñun dañ la soxla lay yow dañ la soxla billaahi Ousmane Sonko. doon na ko xam ne ni tey. ay promotionnaire ngeen man xam naa ni yow yow tey au nom de Dieu boo toogoon Sonko wax ak moom dina la soxla quoi jeune nga xam nga nekkoo ci temps yu xam nga. ah. da ngay recruter da ngay recruter. non recruter non. mais li bëri na bunt bëri na bët de sa portable bi xanaa li iPhone 30 la. Infinix la. bëri na en tout cas bëri na bët de. booy mu mu moo gën bi ma de. bi ma joxoon amul batterie. sama dara bu ma la joxee bor. internautes yi. Morgan moo dem Espagne def ay at ñibbisi ñoo ne ma ñëwal kër ga. Morgan mi ngi indi ay yu bëri ak ne ma ak portable bi ma ñëwee ma yendu ci kër ba ay guddi Morgan di ma jox xanaa ne dafa bàyyi ba guddi pour ma portable bi jox ma ko ndeke portable bi mu ne ma non après da ngay wut batterie nga def ci wax batterie bi ko ba portable boobu xëy aw ma batterie bi nii nii. laay la portable bi loo ma waxoon booy fay nga ma samay bor fay nga ma lépp man lépp lu ma yoroon yow ak der la. ba ba ba posé ma wax sama tante bi waaw non yow bu kay mën dem ñu dem waaye laaj waxal ci Ousmane Sonko après après après ma Sonko dañ la soxla quoi yow dañ la soxla. waaw mani. waaw bàyyi bàyyi gars yi nga hmm. Sonko. Hmm. ku wax du phénomène da nga xamul ku wax du valeur sûre. dans la vie il y a des éléments qui comptent il y a des éléments qui pèsent comprendre hmm. Son il existe il compte et il pèse hmm. xam nga hmm. Sonko dem ba nga dans sa réalité Maintenant, na en personnalité imposé na ben caractère imposé na ben méthode de vie, imposé na ben manière de faire une politique tamit imposé na nit ñi am nañ ñu ci mhm. de telle sorte que mu def une dissociation entre sa personne physique et la personne morale. moy mhm. mu dem mu àndandoo gaay mu def ce qu'on appelle le projet Pasteur. ay nit adhéré ci. Sonko hmm. nek ni Pastef nek ni hmm. ku jël Sonko bolé ko Pastef nit ñi adhéré ci mu doon un programme nit ñi dem donc Sonko existe hmm. Sonko existe individuellement Sonko existe aussi d'une manière euh, par rapport à la personne morale muy le Pastef donc Sonko existe Sonko compte xam nga lu tax Sonko il compte tey booy lim élément politique ci Sénégal ak ci monde entier bi da ciy boole Ousmane Sonko dem na ba nga xam ni tey boo dee lim ay héros ak ay ay ay révolutionnaire euh, du temps yu Che Guevara ay temps ay ay ay euh, Jamal Abdel Nasser ay Nkrumah ah, ay Lumumba ñoom Sankara ay Lumumba ñooñu tey dem nañ ba nga xam ne nii su Ousmane Sonko dañ koy dem ba di ko natable ay Blaise Compaoré ou bien autre chose donc cela veut dire que Thomas Sankara Thomas Sankara kon cela veut ni Sonko compte hmm. booy lim dans le de la politique fii au niveau du Sénégal Sonko il compte hmm. ndax nit koo tudd rek fii ci politique mënoon na tuddal leader politique yi te boo njëkkiwul Sonko tamit Sonko nga ciy teg hmm. mooy deux mala vingt deux donc Sonko compte Sonko, il pèse. Ne serait-ce qu'un gramme, Sonko, il pèse. au moins, il a eu le kilo d'avoir été tout dernièrement aux élections législatives, aux, élections locales, et il est maire. Et que maire. Ben C'est comme si tu n'était qu'un président de la République. Parce que le maire, il est élu au suffrage universel comme le président de la République. Hein? cela veut dire que Sonko il pèse benn voix boobu noonu wala Ben commune boobu muy gagner, c'est des milliers de personnes sàkkamtuma yeneen dëkk yi nga xam le nii la euh, yeewi askan wi am fa ay ay gagné na fa mairie wala aussi yeewi askan wi nga am fa ay ay ay conseil départemental wala yeewi askan wi am fa ay et pourtant le projet yeewi askan même s'il y a d'autres leaders c'est Ousmane Sonko qui en est effectivement le principal précurseur. Donc, Sonko, il pèse. Ah. Hmm. waaw C'est mais analyse donc donc Sonko existe Sonko compte et son pèse. Mm-hmm. Quand tu vois quelqu'un qui ressemble toutes ces trois composantes dans une nation, dans une spectre politique, qu'on est d'un d'un ignoré koy ignorer ak da ça veut dire que tu ne connais pas la politique. Voilà da dof dof. Sonko pèse mais ne pèse pas lourd. Mm-hmm. devant qui. son may pèse mais ne pèse pas lourd.

mënoon nous ko diriger il était sur la très bonne marche mais dans sa conscience et dans ce qu'il fait Sonko a des parts et a des défauts que lui-même qu'il doit rectifier Ce fait que na qui? comme Ben, Ben. c'est purement politique qu'il se mesure à à Macky Sall Macky Sall du comment ça. non bokkul Macky Sall du moromu Sonko ci dara. d'accord accord di nga expliquer lolu vite fait parce que lu fi des bëreetul quoi. pour mom mu ñew pour Sonko ñew ni man mom la doon. non xaaral expliquer la abla Wade li la doon def. ah abla Wade bu muy xëccok Sonko bu muy xëccok Macky Sall deuxième tour. da daf rom romb ko fële ñaari tali ñaari auto yu ko top amul sax fukki nit. génnuma maraamam gaa yëpp yu woo ay centaine de de personnes di yuuxu mais. non non non non non non yow déggoo la. nee naa la moytu moytu la wuy ma. waaw léegi leeral ma dem comment nan nga a waxee loolu yow yaa wax léegi ne Macky Sall gars yi dañu ko weddi ñi ngi saaga maamam te lépp. moom mooy ñëpp kon ko wax. bàyyil sos nag sos. bàyyil sos bàyyil sos bàyyil sos nag. yi dégluwaat leen loolu yow yaa wax ni Macky Sall bu demee bañ ba kenn bëggatu ko yaa ko wax. maa ba nit ñi mel ko. yow bàyyi bàyyi bu ma sosal de man sama président bu ma sosal. dégg nga non saa yi kooku du la def dara yaa ko wax. waa léegi. non non yow Macky Sall Macky Sall Macky Sall wax li muy wax ma ma ma bañ ba pare ne continuer di dem nga ma man dama ragal ma man ragaluma ko man Macky joxuma dara. waaw au contraire man man mi wax ak yow nii. su ma joxoon lan. bu la joxuma dara bu la joxoon da ngay yow yow yow yow yow gis yow loolu yaa ko war a mën a wax sax sama ci man yow man jox ma dara sax taxul ma ragal la yow xam nga loolu. yow xam nga loolu ci man. waaw ah, man réer laa dëgg laa man yow xam nga loolu. yàgg naa laa jox te ragaloo ma waaw léegi léegi yow Sonko waxal foofu ñu ñu ñu daane dem nga ne devant Macky Sall Sonko ne ne pèse pas bouge que ne pèse pas lourd comment explique. non bokkuñ sax. jàng bokkuñ popularité bokkuñ muus bokkuñ dara. comment. Sonko. Sonko moo gën a muus Macky Sall Sonko Macky Sonko. kan ah. kala. Eh, mais ana argument yi tamit eh, yow may saf yaa ngi may saf Coura Macky de. non non non non kooku melu ma moom Macky Sall warul ànd ak sax ay genre Coura Macky ay Coura Macky ay man genre yooyu noonu ñooñu ci ñi yàqal Macky Sall ci lañ bokk. c'est que booy yow war nga xam li ma lay wax quoi ay Coura Macky yi ay ñooñu ñooñu ñi yàqal Macky Sall ci lañ bokk. ñooñu ñi a tax ñun Macky Sall man man yow man gis xam nga la moo xam la laa kii nii am ñoo xam ne ni tey man seen tur su ma ko déggee c'est parce que Facebook bi ak kii moom moo ci bari Instagram bi loo bëggoon xoolal booy doomu may ñaata minute ci des. waaw coupé coupé moom moom kay moom moom coupé naa la jëlaat beneen naa la jëlaat beneen. ban beneen. non beneen laaj yow yow yow foog ma yow foog ma kii kii la quoi vraiment mais nag gars yi nee nañu waxoo fi dara mais yow laay kuramaki kii mooy laay kuramaki am na kuramaki am na laay kuramaki. yow yaay laaj parce que da ngeen wax rek sans ay argument da ngeen wax nii rek doo leen ay argument yu possible yoo xam ne yu mën yu yu yu concret quoi donc coupé ci kaw coupé ci kaw. non non damay ci benn may la ko indi duwaale ci yow xamoo fooy taxaw da ngaa gëlëm mais mais ah. euh, Morgan waaw laaj Kouramaki waaw. ça a été un grand plaisir de de discuter merci beaucoup man tamit sama xarit sama sama sama rakk nga. Mm-hmm. man aujourd'hui yaa ngi may fàttali détails yu bari. Mm-hmm. yu bari sax quoi. man ak yow kese mën nañu live di wax suñu diggante. di wax ay ah, détails yu bari. mais dama lay waxal benn dama lay waxal benn <laughs> non damay nekk de dama lay waxal li bëgg laa lay wax Morgan. maa leen di wax bëgg laa wax man li ma bëgg. Eh. dama bëgg. Hmm. kër gi kër gi. Hmm. kër gi ah. waaw man yow Gadiaga kilifa ak Thiat. ak Denise. ak surub toog benn jour ah. ak surub surub. waaw surub. non loolu soo ko waxee da ngay dugal ay mbaay cuuraay ak ay ñun a yaatu. boobu day boobu day sori. day sori xam nga lu mu ah. dama bëgg dama bëgg nga nga wax ma ci est-ce que ma yow mën may benn affaire. Hmm. yow ak kër gi ni ngeen ni ngi mel mën a yéen ah hmm. ñu toog def benn affaire. Hmm, ok. ne que ñu jël ñaari son waxuma ngeen créé lu bees. ñu jël ñaari son ngeen nekkaat ci même kii ngeen tëggaat. ok ngeen jël gis ngeen jël gis ngeen jël gis-gis yi waroo. ok comprendre nga. Hmm. parce que gis-gis yi woro aussi war nga comprendre bu baax li mu la wax. Hmm. est-ce que seetlu nga gis-gis yi woro hmm. fi caat di sol xaaju boobu bi nii. boobu la civilisation kër gi commencé. mbesaan di sol xaftaan bi te daanu ci escalier non kilifa nga kilifa ngay wax kilifa lañ xam ñoom. dégg nga est-ce que est-ce oh, mais Morgan. kilifa ngay raconte. léegi dama lay laaj. Morgan man suma amee sa accord. wuy ma su amee sa accord. Hmm. je sais que li ci des man dinaa ko mën a am. dama bëgg nga jox ma sa accord. Hmm. Morgan ak kër gi ñu ñëw def une retrouvaille d'anthologie et je sais que ni ci kontaan. dafa gaa yi ngi reetaan ay affaire daanu ci escalier yi te loolu feeñul amul la nga indee fii <laughs> da ngay dafa naan. waaw mais li nga nii. après nañ teg après man ak yow ñooy waxtaan. waaw mais si moo tax ma ne nañ ci teg loolu du problème nañ ci teg. non non dama bëgg nii ñi ngi nekk en live man ak yow. dama bëgg man ak yow. nañ ci man li may wax nii lu ma ñor la. su amee benn nit boo xam ne bëgg na kër gi. benn nit boo xam ne topp na kër gi. tey man je kër gi à cent pour cent sama bureau bu ma fa toogee sax su ma dégluwul Idi Jamil man kër gi lay déglu. waaw. yow xam nga li ma la wax. xam après man ak yow dinañ toog def ci spécial toog ci quoi dañ dem ma bàyyi dafa après dinañ toog teg ci loolu mais man maa la wax ci toog teg ci. déedéet dama lay waxal ah. loolu mën naa nekk. waaw si na ne mën na ne mën na ne. Morgan est-ce que d'accord nga. mais nee naa la mun na ne la mun na ne. dama bëgg nga dem Ablaye Gueye. Hmm. d'accord naa man ak kër gi ñu def benn retrouvaille d'anthologie ne serait que pour benn moment bu ndaw ngeen delloowaat sago publicu kër gi su fekkee bëgg ngeen Kaolack su fekkee bëgg ngeen Sénégal. yàlla baax na yàlla baax na. non yàlla baax na yàlla na mais dama bëgg nga dem waaw. waaw mais laay mun naa la la waa suba ma déggaayoon ma ne la waa après dara amul ma xaw ma ko am ñi ma wax waaw te xam xaw ma lan lay sëg a jël. waaw loolu wuyu ma man boo nee waaw sax te dee ñëpp xam ne waaw xol bu set nga yor dama la ñaan man en tant que sa grand frère man en tant que seen fan original en tant que membre fondateur du kër gi. en tant que réel membre sama gars est-ce que mën na ma may. Hmm. man Ablaye Gueye. Hmm. yow ak kër gi ngeen retrouver pour quelque chose d'anthologie waaw hmm. ah. pour ngeen hmm. sama kàddu jox naa sama kàddu c'est bon jox sama kàddu maanaam jox naa kàddu nga nga dox nga dox nga wax man man ma maa ngi sa ginnaaw quoi maa ngi sa ginnaaw mais kontaan naa waaw mais fii la ëppee fii la ñëw ñëw ñëw parce que laaj mais laaj bu bu caaxaan paxe dëgg ñëwal Pastef quoi lay vraiment ñi gars yi foofu gars yi foofu foofu am nga matière grise gars yi foofu soxla nañ la quoi dëgg dëgg soxla nañ la. Pastef Pastef man su ma nee man mënutuma dem fenn di doon ay militant coboy coboy. Ah, non man fi ma mën a nekk mooy tey su ma ñëw Pastef hmm. su ma doon ñëw Pastef hmm. c'est pour diriger la région de Kaolack. Hmm. mais mën na nekk. non c'est de fait je suis un opposant mais mais j'ai choisi de m'opposer dans le système c'est dans mon cœur me on a gagné par 15 000 voix de différence On on gagné par 15 000 voix de différence. non je est-ce mais mais mais, Sénégal nañu xam ne Morgan jox na ma kàddoom ko incha allah war dinaa ci dox kilifa léegi. dinaa ci waxtaan lu ma mën a dox dinaa ko dox incha allah war Sénégal. ma waxee bi après ma waxee bi mën ngaa tëj. waaw préparé wu leen pour les retrouvailles préparé wu leen pour les grandes retrouvailles gi Mollah Morgun in the house Chad in the house Kilifeu in the house Gajaga in the house Denise. Maran thing in the house. Ang baya curai. Bayan kumaya. Rengkum ti banyak demu. Ba laaj sa anecdote bi laaj tali ko après après nga tej. Wéru ko, ko. Laay dem jënd buti tam yoy ren buti di laasi. ñu war a xëddee la laasi ñu war ko xëddee. waaye ñu ñu mariné laxas yi ba mu teg noonu quoi nag quatre heures rek far booy xoolal ñu ñu yeewu cinq heures et quelques presque six heures quoi ma ma yee laay ne ko laay xëdd bi laay ne ban heure ma ne ko six heures laay ne mën nañ ko xëdd ma ne ko laay waxtu nodd nañ bu yàgg de laay ne non non non tant que ubbi woo naaj bi duggul rek mën a laay non heure bi mu ne booy bul ma fontoo bul ubbi fenêtre bul ubbi rideau bul wàcce rido bul xëcc rido nañ lekk ba suur nga ubbi fenêtre bi. yaa mën a fan. tant que naaj bi jógul rek tant naaj bi jógul mun ngeen xëdd. xoolal ñuy dóor affaire yi ba mu kii naan ba ba laay géex na ubbi fenêtre ubbi ma fenêtre yi ñu ubbi rek naaj bi ne heure ndogu ba oh koor gi tay metti na ma lay yo yo, yo, Yo, yow yow yow on va se reprendre inshallah rabbi comprendre tibuts. Tibours Tibours Tibours yeah dégg dégg non ci ngay bës rek mu dem ki mooy laay ki tibuts laay butit ti boots butit ak inverse la boo sañu ñun dañoo amoon kal nag kër gi dañoo amoon kal quoi ay ti boots xam nga ay gile gile ay affaire yooyu noonu dañoo amoon sañu kalu bopp quoi wax ñun rek kese la laay nag moo ne woon laay butit ñu naan ko laay ti boots boo nee ti boots rek boo demee kër gi boo nee kilifa ti boots rek xam na kan la boo nee caat ti boots xam na boo nee Denis ti boots ñëpp gaa yi xam na kuy ti boots ti boots jaru nga naan laay boo nee ti boots rek gaa yi xam nañ ti boots quoi <laughs> laay na laay sarik laa ni boy bul ubi fenêtre bul ubi buntu bul bul xëc rido yalla def ne ma ne ko ah mu ne neena tank gisulen jant bi tim len rek mu ngeen xëc xëtt ne ko abo ah bon mu ne ma lool ka yalla ko wax lool kenn mënu ko din ci <laughs> ma ne ko oké boy ñu lekk laxasi ba suñu biir fess ne pot bi ñu naan ba suñu biir fess ne fenêtre bi <laughs> mooy bi fenêtre yi jant bi bum laay def amul problème léegi ku ne na gérer sa bopp heure ở ba heure ndogu booy laay na fa jàpp biir bi di woo ah non waaye heure bi war na jot waaw ma ne ma ne laay yow yam nga yàlla ki mooy cái cái kii ay gars la ñu woon képp ku xam kër gi ci originalité am da nga xam laay quoi laay ñu noo doon ànd ñoo doon đi yow đi. lépp lépp amul benn décision boo xam ne mos nañ ko jël bu laay taxawul quoi bu laay toogul c' était c' était notre père spirituel quoi moom mooy ki nga xam moo ñu doon conseillé moo ñu doon moo doon jàppale aussi parce que moment bi ñu nekk ci underground bi dëgg-dëgg moom rek la ci yàlla baaxee mu am liggéeyam xam nga di liggéey ci fonction publique bi di fayeeku yor salaire am yor otoom yor euh, ñun boobu ñu ngi ci underground bi tu donc. groupe bu nekk day am amul na kenn koo xam ne moom moo la jàppale ci bu ngeen dul dara ñun ñun mun nañ ne kër gi laay moo ñu jàppale ci bu ñu dara amul dara laay moo ñu doon jàppale moo ñu doon génnee moo doon fay ko salaire am ñëw teg ko ñu séddoo ko xam nga buñ bu méttee moo moo ñu doon paasal moo ñu doon dugal ci ay ci ci ci taxi moo doon dugal ci otoom sol ci essence fu ñu bëgg a dem non laay moom ñu koy ñaanal gudd fan ak wér rek quoi nit bu baax la nit bu baax la nit boo xam ne la. ku ñu yàgg jàppale quoi vraiment ñu yàgg jàppale koo xam ni ay dispo disponi euh, lépp lu ko yàlla mayoon ci xam-xam ci am-am da ko musa bokk ak ñun da musa bokk ak ñun des fois nag bon dañuy on reste des des des longtemps sans ñu wax sans ñu parce que nekk léegi xam nga yaa ngi ci say affaire et tout euh, voilà quoi laay fu ne laay doon <laughs> laay daga doon tourné sax laay bu toj bëri <laughs> bëri <laughs> dugg ci àll bi dañuy wëral sëriñ quoi kenn du comprendre nag laay dem dugg ba benn àll àll jurbel yooyu noonu quoi àll jurbel yi xaw ma xawutuma sax fan la àll Bambey yi laay dem wëri fa benn sëriñ quoi sëriñ bi léegi ne pour mu indi ñu pour pour laay jël si ñu ñu sanguñu quoi laay dem ñu indi ñu <laughs> taal otoom ñëw jël si <laughs> ñu ñu ànd dugg ci àll boo xam ne bo àll boo xam ne ñu ñëw wooy fekk sëriñ bi daf la affaire yi muy def yëpp quoi yóbbu ñu ci biir àll bi ci ay montagne ñu taxaw ci montagne yi di sangu quoi <laughs> rek ma ne oh rek jamono jooju waa Bionis ñoo defoon sax montagne bu toj bëri doon joowaay mbaa du bomba forom ba fekk sëriñ bi mi ngi taxaw quoi gars yi di sangu xam man dafa mus a neex may tuuroo ndox mi di sangu ci kaw montagne bi rek commencé woy montagne bu toj bëri doon joowaay mbaa du bomba forom ba <laughs> ñoom kii dafa naan ak i <laughs> sëriñ bi naan waaw mais laaj ñi nga ma fi indil yi nga la mu dóore ya, rek mu ne ya? montagne bu toj bëri doon joowaay mbaa du bom ba fa romb rek kilifa jànd ak i tombam ak i bom sëriñ <laughs> bi jommi laay na dootuma laay na dootuma leen indil fii da ngeen maa gàcceel kilifa gu day nii toog ngeen naan ay eh, montagne bu toj bëri toj la lay wax léegi quoi nan montagne bu tok bari bari bomb bari donj mbaa di bomb fa romb <laughs> ben refrain bien mix la woon quoi boy buñ ma tege ci montagne bi rek gars yi doon sax ku ne day sax normalement da waaye ci montagne bi rek sotteeku rek na lay <laughs> eh, mooy lu ne lañu def lo lu ne quoi ne borom baax borom baax la borom baax la euh, c'est ça quoi juste tay ay doomu nday lañ ay gaay lañ mais

laay ci motivation sincèrement laay moom man moom dinaa ci xar samay tànk vraiment ba mu ba mu ñëw Pastef quoi ba mu ñëw Pastef laay jàmbaar la xeexkat la combattant la ba boo ko gisee sax mu nekk APR jaayul ngorom gis nga nu ngeen ko gisee tey tey bañ malgré que bu xam ne mënul bañ a défendre waa ji parce que nee na moom Macky la bëgg et tout mais mais Macky day jeexal dans dans dix huit mois donc on aura besoin de laay quand même non Macky day dem par force Macky moom loolu par force la Macky demagul moom day dof dof mais Macky day dem par force kooku kay bu la neexee du ay calcul politique nga dem gëstu ko ci saar ak ci baatin Macky day dem par force doole mbaam par force doole mbaam par force doole mbaam du ay par la voie des urnes par la voie des armes ou bien lu mu a doon mais Macky day dem par force doole mbaam waaw par force doole mbaam loolu kay leer na loolu kay kenn waxatu ko wala dëkk bi tàkk ba faw faw faw faw faw mu créé guerre civile je sais pas mais day dem par force force par tous les moyens ci fenêtre lay jaar wala mu jaar ci buntu mais dem moom par force la force force pour muy clair mu loolu kay day leer nañ dama ne bu indoon ay avion yu sànni bombe sax comme Russie ak ak ak ak je sais pas même bu doon guerre boobu noonu la xoolal magi day dem amul lum mun a créé ba du dem loolu moom c'est fini amul c'est-à-dire amul fi la xar mi jaar mag mu dara munu ko fee téye te lu ma neex ci laay mooy nit bu véridique la ni bu véridique la parce que gis nga lu mu wax lu wax ci ay kuram Macky nee na ñoom ñooy yàqal Macky Sall et eh, il a raison caga jooju ñooy yàqal Macky Sall de mus naa leen ko wax nag te bàyyi ci xel ci live nee naa leen Macky Sall deuxième tour bu ñu organiser euh, meeting opposant yëpp ñëw. man leen meeting bi daa feesoon dell ak ay mannequin ay mannequin bo xeex naa ba damm ñëw wara a ci gaay na du ma yéeg ma du ma dugg ma tàngal foofu bañ ubbil ma euh, bunte ma dugg mannequin yi fees fa tepp tepp billaahi wallaahi waxoon naa leen ci live man leen ci laa xam ni mannequin ñooy caga yi APR seen régime nga gis mannequin yëpp ñoom ñoo leen di tëddee ñoo leen di yóbbu Dubaay ak yooyu ay bandi lañ ay pervers lañ ah waa APR seen jabar yi la ñuy bàyyi fee laal caga rek la nekkee laal caga rek mannequin yi rek Karina Tabarès gis ngeen ko ci avion présidentiel avion présidentiel mannequin avion présidentiel fu Macky dem di yóbbu <laughs> ay caga rek la ñuy laal caga rek ay arriviste lañu yoo xam dañoo yàggoon sonn yàggoon xuuxaan yàggoon ñambataan dañoo gis mannequin yi jour boobu te lu ma leen wax mosaa leen laay waxal leen ko ne len te lolou noonu bobu jëlagul sax nguur mu ngi waroon ànd ak mag war dem deuxième tour mu fess del ak ay manaké billahi wallahi wa ta'ala man len waxon na la ko ne ci la xam ni ñi ay vraiment bu ñuy falu cagay ji yëpp ci taxawalu bir palais té mi ngi leer nañ ñepp a ngi koy gis ñëpp ku dajale xuuxaan ak ñambataan mo sa way ñambataan ak xuuxaan nga tok jël nguur <laughs> mo taal yaangi tang ñu ngi leen di rawale Dubaay di dem ak ñëw di dem ak a ñëw même bu gaay di tàngal tàng bi fii muy tàng jër ñu ñi nga rawale caga ja daw ñoom ñoom ñëpp Dubaay dem ay Dubaay dem ay Saly fa lañ newoon ci hôtel yi di di tëddee caga pour pour seen xel bañ dem ci tànk taal tàng bu gaay di taal moment bu gaay di taal tàng ñoom ñi nga ñoom caga lañ yóbbaale demuñu làqatu de ku nekk dangaa làqatu ji baale caga ñii daw dem Dubaay yóbbu benn caga mun ko tëddee en attendant seen xel bañ a dem ci moment yi bu nekkee fii di révolté ñenn ñi dem ay Saly Portudal ñenn ñi dem ci Petite Côte ba yóbbu fa ay caga fa lañ nekkoon di fanaanoo caga yi pour pour bañ a yëg ni taan baa ngay tàkk <laughs> ñi mënuñu ñoo jaar fenn ay caga kalandoo lañ nguur caga kalandoo ngeen fal ngeen fal te dinañ fi jóge par force nag na mën a kay profité de parce que nguur gi day jeex nguur gi day jeex nit nag moom nu mel ay ñoom rangook ay ñu nga ñëpp ay Karina Tabarès ak ay ñoom ñëpp ñoo leen di tëddee ñoo leen di tëddee ay kura maki jóge fee ak xeesal gu timpi tampa màgget goo xam ne waras munul bàyyi sax moroomu doomam yi jël jël seen chance mu ñëw di xëccoog moroomu doomam yi ab mer bu màgget ba ras mi ngi bañ ras ba pare di bañ ngas ras man ni goro gu ngas jël ay dóor ay ay wee wee xale yi di dóor noonu mu def ay um, pose ongle émaillé ko mel ni segg comme segg màgget nag xoolal mu ne caga ji du ko bàyyi ne mukk du ko bàyyi du ko bàyyeeg booy gars yi di door mu ne moom tam foog ñu dóor ko moom moom foog ñu dóor ko ci mu yóbbaale weccet wax waxe dof way ma ah, gën rek lay def fan rek journaliste bi ne ko ma ubbi sa saag bi ubbil sa saag ma yëndu ma naan donc yéen dañ may indi xam nga man Abdoulaye Jonn jot na ma fen rek fen rek boo amee fenal génnal bu ñu am fetal boobu boobu yo xam sax mu naan AKK dafa am AK 47 moo am AK 47 AK 47 AKK mooy lan xanaa ki KKK ku Klux Klan gi lay wax xanaa ku Klux Klan lay wax AKK a pistol AKK yaa mënul duul fu AKK am AK 47 moo am mooy AK 47 gàtt xamu xamul sax fetal yi xamul sax fetal yi nag day wax waxi dof rek xamul sax fetal yi day wax waxi dof rek amul dara amul dara mais Sénégal ñoom bu ñu leen bëggee napp dañuy ñëw foofu màggatum càgga ji ñëw foofu di leen gëm muy gën maa ngi yore da ngay fen rek paaka sax yoroo ko paaka paaka sax yoroo ko <laughs> man EKE laa dégg de EKE laa dégg de EKE laa dégg man. AKK AK 47 moo am AK 47 man AKK laa dégg a pistol AKK man maa nga dégg loolu man loolu laa dégg de AKK <laughs> maa nga dégg non dernier bi mujjee def laa man la mujjee sarande dernier bi laa lañ dagg dugal benn kel sax fii moo ma envoyé affaire benn jigéen fii mun na ko seede moo lien bi na ma damaa seetaan bi ni nga doon waxee gémmiñ gi ma gis lolu ci mom ci la cliqué gis meer moy bu mujjé def bu mujjé def mi ngi taxawaalu ci ki rek bu muy tax muy taxawaalu rek tey taxawal di wëndaalu rek ben jigen momu yónnee lol de man mo yoy sax moko gisee muy wax waxe dof ay koku nan ko ma mën na ñew sax yënd yënd saag bi ni rek yënd mais mais ça même bu classe ni ko fla yor fi tank que ko état bi mënuluma dara tey journaliste bu ne kaay ma yëndu kay mun na def nii ñëw yëndu caméra du ko wane mu ñëw nii yëndu noppi après mu ne gis naa ko mais même yëndu mun naa ay état bi mun a fen yaa mun a kàcc tey bu ma defoon fi sama samay yëpp nga ñëw yëndu nii ñëw mooy gis naa lii tant que génnewu ma ko amoo loo ma mun a toppee muy fen na noo def na bu ma gëgg day fen rek day fen rek day fen rek day fen yu tooy bu dee yor na fetal même bu dee yor na fetal munul jël fetal dégg nga leen munul jël fetal di ko jaarale ci aéroport bi même bu dee dafa yor permi bu ñuy yor permis moom yoru permis dama ne fetal fetal même bu dee da koo yor yor permis dix mille permis munu ko jaarale ci aéroport munul nekk day kàcc day fen day duul mais mun a fen la mer bu dul rus la bu gàcce dul rey màggatum caga yu yàgg ya yu ancien yi di fen foo jaarale ak bi foo jaarale fetal bi fan la koy jaarale waaw na na jafandu ci vibromasseur bi rek parce que fu ne morom morom yi ko doon tëddee dee nañ licence sax taxul mu jaar ci aéroport licence du ko jaarale jàpp nañ fi ministre États-Unis ak fetal ministre jàpp nañ fi ministre sénégalais aéro eh, aux États-Unis aéroport mu yor fetal euh, maire maire de Dakar Mamadou Diop Mamadou Diop fu ñu ko jàppee woon États-Unis lañ ko jàppee woon ak fetal bëggoon ko fa tëj Abdou Diouf moo def moo def intervention fetal la Mamadou Diop yoroon maire de Dakar aux États-Unis aéroport mu indi ko kaay na ko nuus jàpp ko mën a di bu ko yóbbu tëj ko ci kaso bi kon yéen a ngi fàttaliku loolu waaw Mamadou Diop maire na Dakar billaay wallaay fatal États-Unis dam leen bind ci archive na leen ko woon day kàcc day duwul dañuy nekk di nax xale yi foofu noonu di nax sénégalais yi parce que xamuñu xamuñu dara ñëw amul fenn fu mu mun a jaarale jóge États-Unis dugg ci trente licence sax mayu ko mu jël avion dugal ci fetal bi may ko ko day fen rek day fen fen Pape Diop ah non Mamadou Mamadou Diop la woon du Pape Pape Diop la tudd woon Mamadou Diop Mamadou Diop moo newoon maire de Dakar Mamadou Diop du Pape Diop Mamadou Diop paa boobu noonu xam ba xam mi ngi dund ba léegi Mamadou Diop maire de Dakar PS PS dañ ko jàppoon États-Unis ndax fetal te pourtant am na permis ci aéroport c'est prohibé c'est interdit kuy liggéey aéroport xam ne c'est prohibé c'est interdit day fen mair boobu fen rek lay def fen rek fen rek fen rek lay def fakk mun a fen toog di nax sénégalais yi di leen foowee sénégal daal gars yi dañ ko jàppee caaxaan quoi ku ñëw di bandi bandulu yow maire boobu bu doon dafa nekk ci gang états-unis rek nañ ko bu yàgg mu naan ñëpp xam nañ ko états-unis moo mun a fen xanaa ay sénégalais ñoo ko xam xanaa day wër ci ngénte yi di toggalaate wala di dëbbu nokkos ban américain moo xam maire boobu maire bi dafa nekk ban gang la ne Crips la wala Bloods ban gang la ne ñaata nit lañ ray ban mafia la bokk fen rek la ñuy def fen rek maire yi taxawaale ci ngénte yeeg xew yi la foofu di toggalaate di rek lay def ñëw di leen dóor di leen mel ni ku nekk ci jóge ci benn gang am ay fetal génn xam nga ñëw xam nga bokk crips wala bloods xam nga tiire fii xam nga euh, shooting euh, drive by shooting <laughs> maire toogal maire toogal ñoo la gën a xam yooyu fuuf ñun ci rab bi lañ nekk ci rab bi wàcc nañ state si ci gang bi ci gang bi ci mafia bi wàcc nañ Detroit ci mafia bi wàcc nañ Philadelphia ci mafia bi ñun nga xam ne mafia daf ñëw mës a neex depuis bu ñuy booy ñu ngi seeraan rap gars yi di yor ay AK forty seven ay classe ni ko toog ci buntu bi ñun rappeurs yi dañ kaa yàgg reebe ba bu ñu demee foofu dam nañ doxi fa dox nañ fa gang gis gang yi gis booy États-Unis booy New York di wàcc seen tubay ba ci fii ba fi ma ma ma topp leen di xool ban ceinture lañ takk takk ko sax ceinture booy di dox New York def nii di def nii seen tubay yi ex fii fii fii seen tubay ci seen jiini ex fii ñu wàcce tubay ba fii ni nii la booy di doxee New York nii nii nii maire bokk nañ foofu ñun boo demee Harlem boo demee ay sin euh, boo demee ay euh, euh, bridge Queen bridge boo demee Queens man maa ngi woon Jamaican Queens maa ngi woon Jamaïque fu tàng maa ngi woon ja man maa ngi woon Jamaican Queens New York foofu laa newoon ci gëble gi gars yi ba seen rasta yi laal taat yi man foofu laa nekkoon maire Jamaican Queens laa doon yeewoo ci sëms ci suuf ci suuf fu ma dëkkoon ci suuf bés si basic bi laa ci suuf Philadelphia wàcc naa fa wàcc naa fa maire yamal ngay ñëw di bandi bandi lu ci biir di sénégalais yi di kàcc xamoo sax fetal yi xamoo fetal yi nga xam fetal yi ngay kàcc rek ngeen di fi nekkee fen rek waaw man ma nee New York Jamaican Queens laa nekkoon ci slums bi voilà mu tàng jër <laughs> mu xoolal koo ne fekk sama fu mu ne la non booy ñëw ñëw ñi daje Brooklyn wala ñëw ñi daje 116 fu sénégalais yi maire boobu boo demee 116 nga koy fekk muy taxawaal 116 fu sénégalais yi nekk di naan kafe Touba di lekk dibi sax <laughs> maire yow arrêté waay yooyu ñoom Macky Sall nga ko ñemee wax ñu foofu di dof dof loo ko bandi bandi lu ne xoolal ay booy Sonko ñi ngi fi ñoo la gën a teng puuf ay pastefiens ñi ngi fi ñoo la gën a feebar puuf ci gëru bi lañ nekk ci lañ ci lañ mbartalu ñoo la gën a siburu puuf ñoo la dàq tiire puuf buñ la longooree duñ la wàcc boo ko weddee dama laaj Macky Sall nga toog di kàcc si télé nga duul sa duul yu tooy maa ngi dem déglu ci Ousmane Sonko waay one love formation yëpp Grigny Bonne dans le 9-1 dans le 93 euh, euh, dans a 9-3 you know jamono ñoom Amady Koulibaly fa la ñu fekk yow yow réewoo sax nga dof dof rek ñoo la gën a feebar booy nekk Sonko ñoo la gën a si buru fuuf yow boo yaree gën ñun na ñii ay Kalachnikov lañ yor yo ay gën nga yor karaj karaj ñun ay Kalachnikov ñun ratatat lañ yor ratatat yow karaj karaj bum ñun ratatat lañ yor ratatat dañ lay wàcce toogal Sénégal di wëyi wëyaloo ko band bandul ñu lay invité ngay wax waxi dof ci télé yi respecté média yi ñoom la wa média yi ñoo ñu respecté wul bu ñu joxoon cër xoolal duñ la woo ci ay télé ay rajo ngay duur sa duuru tooyoo mer mer bu ñàkk jom nga mer bu ñàkk fayda say moroomu doom ñi ngi ñi ngi lay ñak jom bi nga def ñak fayda bi dama nga jaamu ji yalla damal jaamu ji yalla mo gën sa li bo dé safara nga jëm dé té Macky Sall dula ci génné bés bo dé bañ sul bañ noq suuf ci ba rokkos lako di nga xamni Macky Sall dara di nga xamni Macky Sall jarul demal nga jaamu ji yalla ñun ñi ngi dem nak déglu ji not not patriote not leader le charismatique l'incontournable Ousmane Sonko one love on changera ce pays le combat continue big up sama guy.